asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi am di jàmm yi soppe yeeg àndandoo yi dellusiwaat fii ci penc ci seneweb point com di leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam gannaaw ba ñu santee yàlla mi ñu may kàttan ak taal gi ba ñu mën a dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen ci seen waxtaanu tey bi seen waxtaanu ngoon gi euh, nga xam ne nag moom mooy penc mu wax sa xalaat ñu fas yéene dellusiwaat comme ni ñu koy defee saa su ne ci actualité bi te actualité bi xam ngeen li ko dominé mooy euh, daan ji nga xam ne teg nañ ko kii di Karim sa wadd ginnaaw bi nga xamee ni nee nañu euh, am na daal ci xaalis boo xam ne xaalisu Sénégal la jël na ko def ci ay mbiru boppam te loolu ñu koy toppee buñ koo xaymaa toll na ci soixante-neuf milliards loolu tax na ñu daan ko juróom benn ati kaso ak ci kaw juróom benn ati kaso yooyu ñu am alamaan ko lu dayeek cent trente-huit milliards loolu na xam ngeen ni démb waxtaan nañ ci ginnaaw bañ leen laajee li nga xam ne nag moom mooy seen réaction par rapport ak euh, li nga xam ni moom mooy euh, verdict démb bi ginnaaw nag ba ñu defee seen réaction ci verdict démb bi tey dañuy dem xuus ci leneen ba tey ci loolu dañuy des ndax moom mooy actualité bi waaye dafa am yeneen yoo xam ne ni ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu teg daan bi ah noonu lañ ko gisee noonu lañ ko jëlee fas yéenee nag euh, euh, euh, maanaam wan Sénégal ku ci mel ni président Abdoulaye Wade nee na teg na lépp ci loxo kii nga xam ne moom mooy ah Serigne ndax ñoom moom la ñu yaakaar moom la ñu gëm ah te xam nañ ni lépp lu leen daal rek ci kër àdduna ah, dañuy jàpp ni ah, maanaam sëriñ bi ah, moo leen di jàllale ci yoon boobu moom Karim Wade ci boppam am na benn bata benn ëttu yëglekaay bu ko bind muy wax ni moom sang bu tedd boobu xaadim rasul jàppoon nañu ko ci giiru juróom-ñaari at te bu mu ci jugee ñibbisi yàlla ndam la ko ci may kon moom jàpp na ni ah, wax dëgg neex yàlla ah, mi ngi ci foo xame ni teg na ah, tànkam foo xame ni dafay roy ci kii nga xam ne nag moom mooy di guide religieux am di Serigne Touba alors kàddu yooyu ñu ne moom Karim Wade moo ko wax man ma jàpp nii ah loolu de bu fekkee wax dëgg neex yàlla ni gëm-gëm googu la am ah tabaarikàlla yàlla de ah, dafay dafay dafay faral di ah, wax dëgg neex yàlla ñi nga xam ne aji gëm yi lañu ah, daf leen daf leen di dooleel ci seeni ci seeni gëm-gëm te seen gëm-gëm boobu dina dina leen permettre ñu surmonter lépp li nga xam ne obstacle la alors daan nañu faral di wax ni yenn saa nga jël nit mbugal ko. dugal ko ci kaso fekk yoon boobu nekk yoon bi nga xam ne foofu lay jaaree pour daal di texe alors euh, gis nañ fi ci euh, Nelson Mandela nga xam ni euh, juróom-ñaari at pratiquement tëj nañ ko ci kaso bi ba mu génnee gis nga ni ko àdduna vraiment boo tuddee turam sax ba tey nit ñi dañ koy daal di dem ba demoon nañ ko ba koy vénérer tellement que ci yoon boobu yoonu méttit boobu mu jaar ci la ko yàlla defalee ndam loo xam ne way bu budul fay la Karim moom it gëm na ni yoon bi ñu koy jaarale yoon la boo xam ne ah sunu borom moo ko ko traceel ba nga xam ne si la war a jaar pour am ndam bu budul fay boobu ndax moom Karim gëm na ni euh, lii ñu koy tuumaal yëpp yëpp yëpp parce que moom nee na euh, ak waa këram ak ñi mu àndal nii quelque que soit lu euh, juge wax lu procureur wax liñ fay jéem a wane yëpp nee nañu dara tegewu ci yoon ba tey indiwuñu benn firnde buy wane ni moom moom lii donc comme que ñoom xam nañu ñu ngi ci dëgg te teg nañ leen doole jaay nañ leen doole ba teg leen daan bi kon moom gëm na ni dafay xool ci ñu baax ñoo ñi nga xam ne tooñ nañ leen tëj leen ci kaso bi ñii ñu euh, exiler leen ba ñu dellusee ñu am ci ndam alors loolu nag lañ leen di laaj ndax jàpp leen ni ah euh, loolu waxu karam yooyu ndax du nekk prémonition maanaam koo xamee ni lii muy wax ni tey xëy na ëllëg mun nañ koo dund ndax wax ju xóot la wax ju am solo la moo tax alors ñu ngi leen di xaar ci euh, téléphone bi 347 380 69 09 mun ngeen commencé woote ah. bu fekkee yéen a ngi dégg waxtaan bi cent 347. 380 69 09 wala ngeen woote ci Skype bi kër gu mag wala diaspora ndax maanaam euh, Karim nii ma ko jëlee jàpp ni euh, moom de jaay nañ ko doole tuumaal nañ ko loo xam ne defu ko tëj nañ ko kaso kon da koy daal di muñ ni nga xamee ni noonu la ki nga xam ne moom it maanaam yaakaaram la ki nga xam ni moom it euh, sëriñam la kii nga xam ne moom it wasilaam la ni mu amee woon ndam ca bañ ko tooñee ba ko jaayee jéem a jaay doole ah, ah, jëlee ko ci dëkkam yóbbu ko en exil ba ñu ko tëjee ci kaso bi it ba ñu ko génnee ba mu ñëwee ndam lu rëy la ko ci sunu borom may alors loolu mooy ay waxi Karim Wade ñu déglu leen seen réaction naka ngeen jàngatee waxu Karim Wade yooyu ak Ablaye Wade mi wax ci ni teg nañ lépp ci loxo sëñ Touba tey xaar nag moo àtte leen Ibrahima Sarr Kanté Kanté suma nguur maa jàmm nga am. waa euh, di la nangu ziar la koy delloo kon maa jàllo. waaw di nuyu auditeurs yëpp démb euh, damay dég damay déglu ba ci ak tuuti sax bëgg a intervenir far xaw a jàppanteeg. xaw a jàppanteeg nelaw nag dafay guddi dafay guddi. mais mhm. waaw mais Amath day toll foo xam ne comme ni ma ko waxoon rek yàlla def na jàmm. yàlla na continuer mais xam nga amaat kaso si boppam moo xawul neex te benn waay doon na ko wax nee na sëñ Touba amul woon poos amul benn yëre sabadooru sëriñ Touba boo xam ne dañ koo bët waaw amul benn yëre sëriñ Touba ba nekk Touba benn yëreem boo xam ne téyër ba ko doon ñaw da cee def poos amul kon boog euh, yëre sëñ Touba yëpp amul woon poos parce que du woon laal benn waay doon nettali nee na Alaaji Abdou ñaari frère yu bokk ndey ak baay kenn ki am doole kenn ki amul doole kenn ki jël xar bu xar day un million un million xar bi un million la un million valeur un million mu jël un million ci xaalis di dem di pour di ko jox alaaji abdu moom fekk frère am bu bokkal ndey baay ko bàyyi ci kër gi amul xaru tabaski mais yàlla mi dara tëwul moom ba mu demee di fa nekkate frère bi moo ko fa jiitu yeewu na fajar moom dugg ci car rapide yi dem moom moom mu bàyyi ba dix heures mu taal otoom bi sëriñ bi génnee yem ci frère bi na ko toogal xam naa lu la indi rakk ja ñëw bàyyi mag ja rakk ja ñëw indi un million jox ko seriñ bi bi rakk ji dugg mag ji di dugg mag ji toog ci wetu sëriñ bi rakk ji ñëw ñu sëriñ bi jox ko un million yi sëriñ bi yëkkati enveloppe xoolu sax lu ci nekk daal di koy jox daal di koy jox mag bi ah rakk ji ne ko xanaa sëñ bi si ne am ah, mu ne ko du duma ko xool sa yéene laa yeggale rek <laughs> kon bokk loolu benn genre waxtaan la rek amaat xam nga Karim Wade foofu mu nekk tey eh, tant que duggoo fa ndox yow sax waxuma la yow c'est-à-dire kenn ku nekk tànk demoo kaso te kaso nag il faut ñu jàpp ne kenn defalu ko xar yi kenn defalu ko ginaar yi ak muus yi euh, kaso dañ ko defal nit ñi amaat dafa damay wax kene kaso li tax ma ne jombul kenn mën nga jóg génn sa kër di dem di liggéey maanaam am kenn ku créer accident créer accident yow nga doon moytu ci créer ki créer accident ba ba am lu mu def yow nga doon moytu mbëkk leen kooku de mën ngaa dem kaso facilement mën ngaa def kaso un mois balaa ñuy xool kene yaa ko tey wala teyoo kon kaso amaat dafa joomul kenn waaye yàlla la la la la dugal la la waajo doon wax itali mu nekk da doon jaay saak mu nekk kaso la la fay dugal yaa koy def mais lala la fay génne ñeneen a koy toppatoo pour nga génn amaat kon boo kaso moom wax fa dëgg yàlla duma ko mën a teg ci benn cadre di ko dénk kenn maanaam du dénkaane kenn laa koy teg maanaam euh, dénk naa sama bopp euh, sëriñ bi dénk naa sama bopp amaat man du ma teg kaso loolu parce que si sa rajo bi ça fait dix ans ma ci ça fait presque bientôt huit ans may wax si sa rajo bi amaat lenn li may njëkk a wax di ko mujjee wax mooy dama ne la bu a kenn gënal sa baay c'est-à-dire man Sénégal yëpp ña fa yeewoo ñëpp baayu kenn gënul sama baay man man sama baay baayu kenn ku yeewoo Sénégal du ma nangu bu gën sama baay amat te loolu mooy dëgg c'est-à-dire kon dem kaso non dem ko dul dénk kenn mu dimu ko téyel man dinaa jéemoo góorgóorlu man ba bañ a dem kaso amat loolu mooy dëgg amat kon boo am Karim Wade kenn yéenew ko mu dem kaso mais nit ku nekk boo toogee yow kese jaaxaan yàlla tiim la li nga def yaa ko xam ak muy ñun ñëpp ñun ñëpp yenn saa nga dugg ci néeg néeg ñeenti koñ la ñeenti koñ mu am bunt ak paranteer nga jël jigéen boo takkul ànd ak nekk ci néeg bi mais bu neexoon yàlla mu toj ñiri amaat juuf bu neexoon yàlla yow yaa ngi nëbbatu ñoom Ibrahima Kanté di nëbbatu ñoom Elwa Ndiaye di nëbbatu ku ne di nëbbatu ñoom amaat juuf no yàlla moom mi ngi lay tiim di la gis mais bu la neex moom bu ko neexoon day toj miir yi ñëpp di leen gis yéen ñaar ne li ngeen di def du yoon waaye moom du ko def kon boo kenn ku nekk sa aqulaayu taala bu la yàlla tiime moo lay tiim li nga def yaa xam kon boog ñoo ngi ñaanal Karim Wade su fekkee liñ koy jiiñ defu ko yal na yàlla leeral yoonam te looloy dëgg bu liñ koy jiiñ defu ko moom no yàll na yàlla leeral yoonam mais gis nga amaat ñun ñi ñëpp Sénégal lañ dëkk kenn ku nekk di nga fekk nit ci mbir mën nañu wax ne enrichissement illicite no yenn saay dinga di nga fekk nit ci mbir ci du ñaan moo ko ko may du dañ koy may xaalis moo ko ko may nañ dëgg amaat yenn saa yi di fekk nit ci mbir boo xam ne dalay leer na la ne no xaalis bii ni amu ko ci yoon amu ko ci yoon parce que tamit mënoo yëkkati cent millions di ko may nit benn waaye def na ko il faut ma tudd ko ci rajo bi ngeen xam ko tey ma tudd ko Baba Ndi Sissoko il était le seul africain malien boo am presque une cinquantaine d' avions moom kese am cinquante avion benn nit sénégalais africain kese nga am cinquante avion bi ñu demee ba ci cappaandaw li xam na ne xaalis bi nim ko def ba am ko du yoon kon boog dafa am logique boo xam ne des fois euh, bi mu demee pays se retrouve avec zéro franc la nit ñi rendre compte que ne Babandi Sisoko fan la jële woon xaalis loolooy dëgg des fois ci rajo boo am la ciy wax turu ni kon boog man waaw dama dugg damay dugg si émission bi tey di déglu. Mm. mais dama bëgg a wax rek. te ñu ko ñëpp ñu dox ak suñu xel ba pare jiital moralité maanaam kenn ku nekk jël Karim Wade teg ko sa bopp. Mm-hmm. que kenn ku nekk li ngay def. non nga teg teg ci nga jiital si yàlla ba pare. Karim Wade nag man personnellement man maa ngi koy ñaanal bu fekkee ne xalaat na ne lii nii tooñ la. non yal na ko yàlla leeral kenn ko si jàmm bu fekkee ne lii muy def nii moom xalaat na ne tooñ na yal na ko kii baale baal moom mu rëccu ko bañ koo defati loolu daal laa koy ñaanal parce que kaso moom metti na mettaay goo xam ne moom kenn du ko yéene sa moroomu doomu aadama loolu daal laa doon wax maa ngi ci émission bi nag di déglu Amath Diouf. Kanté Soumaré Korma Diallo di ko jaajëfe bu baax a baax di nuy suñu mbokk yi nekk France yëpp euh, mu nekk kàddu yu rafet Ibrahima rafetlu naa kàddu yi ndax euh, tamit mun nañu tuumaal nit yenn saa Euh, comme mun na nekk dëgg comme mun na bañ a nekk dëgg moom daal jàpp na ni lii ay tuuma la yu ñu ko teg defu ko nag muy roy ci kii nga xam ne nag moom mooy giddam di Serigne Touba nee na Serigne jàpp nañ ko juróom-ñaari at ba mu fa jugee ndam la ko yàlla defal kon mu ngi séntu ndam ci épreuve bi nga xam ne engagé na ko bu ci génnee baayam tamit di Abdoulaye Wade ah, jàpp ni moom it nee na lépp rek ah, teg nañ ko ci loxo sëñ Touba ndax moom la neex moom la soob li dal leen kon ñoom ñu ngi ci yoonu dëgg 917 salaamaaleykum. waaleykum salaam Baye Amath Diouf na ngaa jàmm waaye jàmm rek naka affaire yi. sant bu baax def. ak madame mi ngi sant ñëpp a jàmm naka famille bi. waaye ça va ñu ngi ci jàmm sant yàlla bu baax démb dama biise woon nag. dëgg la moo tax dégg dëgg la dëgg la. na def. sant bu wér a wér a wér a wér. ok léegi Amath man li may wax ci affaire bi damay commencé ci ci Ablaye Wade ba pare ñëw ci kaw Karim. parce que Ablaye Wade boo seetee ba euh, affaire bi commencé Ablaye Wade lu nekk la def pour procès bi bañ a am ba mu demee ba xam ne procès bi am na Ablaye Wade na lii bu fi amee danaa indi bu ngeen dem na sax ba banaa danaa wax affaire armée ay affaire coup d'état ak yooyu yëpp ab Ablaye Wade wax na ko fii ci suñu kanam ba mu demee ba ñàkk ñàkk njëkk amul dara dara lu mu wax mu ne du nangu verdict ba verdict amee da may dégg. bu baax Ablaye Wade ne do ba verdict amee Ablaye Wade ne léegi euh, bàyyi na affaire bi yëpp ci loxol yàlla ak sëñ Touba mais nag mercredi bii di ñëw jox na rendez-vous ñëpp Sénégal yëpp place de l'Obélisque. ajuma ajuma ajuma ah ok ajuma waaw léegi bu mu seetee ba xam ne yëpp euh, maanaam doxul la mu doon xoxatale nit ñeg yooyu yëpp xam na ne foofu face à la loi léegi dernière chance am mooy jox na ko sëñ bi ak meeting meeting bi bi ñuy bi ñuy déglu ci ni nga ko waxee fan yi di ñëw léegi ci tey sëñ Karim Meïssa Wade moom dafay nax boppam bëgg a dox ci maayinu Sénégal yi maanaam bu fee amee kenn du ko nangu te du kenn nangu kenn deful Karim Wade sax man pour man dafa yëpp murid yi maanaam sëñ Touba mi muy tëkkaleeg boppam sëñ Touba dafa jaayanteeg boroomam ba mu. ah déedéet teqalewul de teqalewul teqalewul xam lu ci nekkit nañ ko woote nañ ko woowee ni mu nekkee. teqalewul boppam ak sëñ Touba deful loolu. déedéet xam nga nit ku nekk taala nit ku nekk dama bëgg muy leer nit ku nekk am nga Karim li na man rayuwaay ku nekk am nga droit ku nekk am nga droit am royuwaay ku nekk am nga droit ne diw de defoon na lii war na maa mën a jéem war na maa mën a jéem loolu pour am la mu am wala am la ko jege voilà amaat ba léegi fekk ma la mu am moom du ko mën a am waaw d'accord waaw mais teqale moom jaayante ak boroomam ba am lii mu mu Karim Wade moom dafa sàcc ñu dugal ko ci kaso. ah déet moom nee na tuuma tuuma la nee na loolu dañ koo tuumaal loolu amul. juge juge Henri Grégoire ñaari waxtu la la la teg yor cent soixante cinq page tant bu nekk mu a ak Karim lii ak lii nga def lii ak lii la fi code bi wax ñun sunu justice la ñu gëm. justice bi sénégalais yi la fi toogal toogaluñ la fi toogaluñ la ma ma fi man mii di wax ak yow dama bëgg loolu di leer Henri Grégoire Diop dafa yëkkati loxoom waat ne dëgg laay doxal dëgg laay atte dama bëgg loolu leer ko kon Karim Wade mënu la nekk simple citoyen simple sénégalais yi sénégalais yi sàcc mburu ñu atte leen dara du jëpp moom mu sàcc ñu jàpp ko ci loxo ci loxo mu leer ñëpp bañ koy àtte leeralul dara bu fekkee li ñuy wax kay dëgg la bañ koy àtte na ko kaay wax mu wax nit ki ba koy faral aussi da ngay faral koo xam ne waxuma la yow yow yow en général laay wax ñi koy faral dangay faral koo xam ne maanaam neex na jàppale Karim bu fekkee ne procès bi dafa ñëw mu ñafe ci kanam Sénégal yëpp luñ ko laaj mu ñafe reyante ne lii ak lii ak taxaw lii amul lii amul lii dëgg la lii dëgg la ay avocat jàppale bu boobaa kat bu ñu joxee verdict danañ na kat Karim at least ñii mën nañoo gëm ñii mën nañoo bañ a gëm mais yow kuy dem ñu lay gën sàcc nga maanaam soixante neuf yi ñu jàpp soixante neuf ñu jiiñ la ko mais occasion lu mat huit mois waxoo ba ñu tëj la kaso nga toog naa ah, ah, ah, pour man yenn yi yabaate la quoi nañ waxante dëgg léegi ci tey. waaw mais ma laaj la lu gàtt rek. yow yaa ngi Amérique diire ngi nii. waaw muy dëkk bi nga xam ne fonk nañ ko lool ci li nga xam ne moom mooy. Euh, ak ak yelleefu doomu aadama démocratie. waaw ak li nga xam ne jël nañu ko ci alal di ko def ci wàllu justice. Mhm. mais ñaata yoon ngay toog jékki-jékki seetaan tele ñu ne la libéré nañu waa ji après trente ans de prison quarante ans de prison ci loo xam ne ay erreur judiciaire la woon mais taala ñiy atte ay nit lañu kenn ku dul juum mooy sunu borom bi moom subhaanahu wa taala moom kese moo dul juum taala ba kon kon est-ce que pourquoi mënoo accepter que ni mun na mun na am un pour cent de chance xam a ñu tëjoon cinquante ans fifty years ago dañ koy àtte at least wax na la mu wax eh, ay lay na ay avocat lay nañu at least at least loolu dama bëgg muy leer kaaw Karim Wade Karim Wade again dafa neexul a jàppale ku ñuy sàcc jox la jox la chance juróom-ñetti weer nga doo wax mais amaat kooku ku ko jàppale aussi yow maanaam maanaam dafa maanaam nag ba àtte bi jeex ba toog naa ah sëñ Tuba laa gëm lii ak lii bu ñu foog tarif bu mu ñu yàpp mën naa nax mën naa nax waa PDS mais ñun sénégalais yi gëm yoon gëm yàlla gëm yonante bi gëm sunu ñàkk bi ñuy liggéey sonn ci lool mu bëgg ñoo ne ko fuuf ci ñetti weer kooku ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg premièrement six ans yi ñu ko dóor tuuti na amende ko dóor tuuti na léegi ci si tey waa PDS la lay lay waxal waa PDS dama bëgg amaat ñu am fulla ak fayda seetal fi Ndella Wade jigéenam jigéenam bële est-ce que ba Karim Wade du nekkee ci kaso ba gis nga ko bi waa PDS génn ci mbedd mi ñu leen di lacrymogène ak yëpp gis nga suñuy waa si Ndella Wade mu bokkal ndeg baa ñëw taxawu magam déedéet bu fekkee ne mu nga Paris askaaw moo fa nekk di taxawu magam ju mu bokkal ndey ak baay mosoo faa gis Sindiéla Wade Sindiéla Wade la muy liggéey la muy lijjanti mu nga Val d'Isère ci Alpes du ski bu ko deful mu ngay wër fu course otam lu mu am def def ko mais ñàkk fay da weesul loolu yéen ki ngeen di jàppale jigéen ne la toog ca France ngeen nekk ci sedd bi ci hiver bi ndax magam ju mu bokkal ndey ak baay mosu faa teg tànk bi mais ñàkk fayda weesuwul loolu dama bëgg nañu di yeewu bu kenn nangu sa gën la kenn gënul kenn. am na solo bu ñàkk fayda nag parce que. jox sa par sama mbubb bi nag Karim Abdoulaye Wade bu ma dee ree sama njaboot ma teg paaka seen fët mais mais il faut que tu sois ak ndof la dañu am ful la waa PDS. jërëjëf Talla bu leen kenn gënal seen bakkan léegi ci tey Amar. Hmm. léegi ci tey li ma bëgg leeral mooy lenn. Hmm. mu leer ci kanam ñëpp. mooy lan. one down one to go. Hmm. Karim dossier am fenn nañ jublu léegi ci jigéenam su ngeen wàcc wa ah Karim mun na mun na nekk eh, mun na nekk candidat de 2017 di ndax il n'a pas perdu ses droits civiques eh, te ci diggante bi lépp mun na fee xew alors il peut toujours se présenter Karim li mu wax man de dama ci bàyyi xel li mu wax daal li mu wax nit ku ne ku am xel ku ne di nga xam ne lii dëgg la woon démb dëgg la tey yoonu Serigne Touba moom yoonu ñëpp la te jël na exemple ci koo xam ne jël na exemple ci koo xam ne royuwaay la exemple ko xam ne wéeruwaay la waaw am na ndëgër laay de Karim Karim am na ndëgër laay mu ah, wéeru ah, foofu foofu mu wéeru daal am na ndëgër laay maanaam une fois que da nga gis ci tribunal bi euh, fay na la gis ci yow sàcc nga dama bëgg loolu di leer une fois que nag fay nañ la guilty ba amal la nangu say bien yow considéré nañ la ko mu sàcc mu bëgg looloo am mu bañ koo bëgg looloo am. jërëjëf jërëjëf Talla. ok Amath. waaw ma xamalal leen am na ndëgër laay de foofu mu ko teg dem man de bu dem noonu fa laa koy teg. Euh, ma nuyu euh, Serigne Samb asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah mbaa jàmm rek nga jàmm rek xanaa santaat suñu borom bu baax. naka yi tey. sant sang ñu gënoon sant bu baax a baax ñoo ngi leen di siyaara. ñu ngi ñu ngi lay ziar ah dégg nga di euh, maanaam pënd ba wiireegul ci coowul Karim Wade bi ak daan bi nga xam ne daan nañu ko bañ ko daanee nag juróom-benni at. Euh, amande ko cent trente huit milliards moom euh, Abdoulaye Wade ancien président nee na daal lii teg nañ ko ci loxolu yàlla ak sëñ Touba moom Karim Wade ci boppam jox na exemple boo xam ne ni ah ku doon keneen it da koy joxe ndax exemple boo xam ne ñëpp a ciy roy euh, nee na kii nga xam ne moom mooy sàng bu tedd bi euh, tëj nañ ko euh, ci juróom-ñaari at moom fa jugee gis nañ ndam li ko yàlla defaral alors moom it muy kam naa boo ci jàngatee mooy ku muñ muñ daal yow ban jàngat nga ci def. amaat nag ah, ah, ah, amaat nag jiitu na mais amaat amaat ni nga koy interprété du noonu yow. waaw non man noonu laa ko gisee Pape man noonu laa ko gisee ku muñ muñ yow après di nga wax ni nga ko gisee bàyyi ci wax ni ko gisee. waaw Amath. waaw. waaw maa ngi nuyu gars yi maa ngi nuyu gars yi yëpp gis naa gis naa déclaration déclaration biñ ñu ko attribué. bon maa ngi tàmbalee damay tàmbalee ci Ablaye Wade. Eh, Ablaye Wade sikk bu ko nit mën a wax xam ni moom mësta jóg ci logique boobu maanaam moom moom il se considère un mouride su taxaw ci ko wax toujours ba muy Ablaye Wade ak léegi moom amul maanaam naka jekk dafa ma sax fi mu féete mu fii laa féete lii laa gëm ñii laa topp nit d' am na ci droit kon sot tey man du def surprise Karim Wade eh, dafa am damay dégg toujours gaañ di wax ni kenn gënul kenn kenn ya ñun murid murid dafa doon loo xam boo ci ba dugg da nangu yow ku la moom na nangu ku la gën mooy nangu ku la gën waaw Ibrahima. Ibrahima doom am na mbir bu jógee foofu de Kanté. Ah, baax na. bu ne am nañu am nañu ñu nag indi polémique bu maanaam yàlla moom ñëpp waaye àdduna ku ci def am référence ñun murit ñoo choisir kenn forcé wuñu kenn obligé wuñu ñu dem cib sëriñ xool xam ni kii kat moo ñu gën bu ñuy wax gën ñun ci ay jikko la ñuy wax ndax sallallahu alayhi wa bi ko suñu borom di yónni ci kaw suuf ay jikko la ko tàggee ñu ko na ñëw jàngal nit ñi ay jikko yu rafet demal nga mottali jikko yu rafet yi enseignement am jikko yu rafet la ku ñu xool ba xam ni yow yaa ñu gën jikko ñu nangu ñu yow kat yaa ñu gën loole lañuy wax gën waaye bu dee judd rek ñëpp jigéen a leen jur ñëpp góor a leen jur kon ñëpp ci yem ñëpp a yem ci ci waaye nag ay ay ay daraja suñ borom musu ko fay jëlee moo wàcce rasulullah ni ko yaa ma gënal bind lim bind lépp ci doomu aadama yaa ci gënal kon ñun kenn forcé ñoo ñooñu waa sëriñ tubaab moo ñu gën waa kër Serigne Touba ñoo ñu gën ñun ñoo dem joxe suñu bopp nangu leen a topp ci yoonu yàlla. loolu point boobu point bu ma bëggoon a taxaw bu weesoo loolu nag léegi ñun murid yi du ñuy dof maanaam politique kenn ku ci ne am nga xelum di discerner xam kii lam lay yóbbu lan la lam la du yóbbu lan la boo ciy dem sa tey fu bakkan nga ciy àndal Karim Wade li mu wax nit dafa soxla ci àdduna espoir kenn ku ne ci ñun da nga soxla espoir kenn ku ci na ci ñun am nga foo xam ni mooy sa ressource moo lay kàttanal di la dooleel kenn ku ne ci ñun am nga loo xam ne doo ko def soit yaa ngi bàyyi xel sa borom kon ngëm-ngëm googu daf lay contrôler bu mettee tamit nga delluwaat ci ngëm googu mu apaiser la man déclaration bi ma jàpp mooy que ni ah nit ki kët fam toll fuñ toll nii sëriñ sàmb bu fa toll woon man waxuma sax di to di yegg foofee déet man sama journée de chaque jour dama ko bàyyee Serigne Touba sama instant bu ne man dama ko bàyyee Serigne Touba kon déclaration bi mu def ñu daan yóbbu ko yóbbu ko kaso moom la wala du moom kooku ñun wax dëgg yàlla kenn ku ci ne da ngay juger nii ci biti waaye ndax moom la wala du moom suñu boroom rek a xam moom nag lam déclaré ni moom ah, wéeru na ci ndax kët jël référence ci kookee mooy kookee dañ koo tooñoon hmm? ah teg ko ay diis yu metti mu subiir ko na mujj moon suñu borom yëkkati ko ca kaw kon moom mu ngi espérer que ni ginnaaw dañ koo tooñ suñu borom dana ko mës a yëkkati ca kaw jàngat jàngat bu yomb la am na ci droit hmm? am na ci droit ndax maanaam la fois dafa am solo ci xare badar bañ koy xare ña demoon ci jullit ñu trois cent treize personnes la waa acca bismillah c'était ñeen doon xeexel c'était plus de cinq mille personnes benn différence dong lañ amoon mooy que nit ñii dañoo am ngëm-ngëm maanaam pas-pas bu wér moo leen yokk doole ñu xam ñu dem ba mën a gagné maanaam xare bu toll noonu trois cent treize personnes ci plus de cinq mille et quelques personnes ngëm-ngëm dong moo doon différence ngëm-ngëm dafa am solo ci nit waaw dafa am solo ci nit. dëgg la. confrérie murid nag du ñuy dof hmm? maanaam topp jóguñu topp nii ku gëmul gëmoo waaye murid moom amul murid bu moom boppam murid nag yomb murid nag moom lii kese la sëriñ bi def ni Touba li habdin muridin saadixin lawoo bi xidmatin aw bi ubbi aw adiyaati daf ni mhm. maanaam ajjana ñeel na bépp mindaafun tuubaa garab la ku ne ci ajjana ñu ab bërëb la ci ajjana mu ñu àddina doojee ñeel na bépp mindaafun boo xam ni hmm, maanaam dikk nga joxe sa bopp fii ci man mhm. Mhm. bëgg ma di ma jox àddiya wala nga may liggéeyal ñett yi boo ci def mun la ñeel na la kooku nag Karim Karim Wade xanaa def na ci benn ba ñeel na ko ah wax dëgg am na solo solo sëriñ di ko jaajëf bu baax a baax sëriñ di ci profité di nuyu soxna ànd Abdou sama la préférée demee Haalpulaar foofu ca France nuyu ko nuyu borom këram ak njabootam yëpp Anna Abdou Sy alors Ousmane Ndiaye laay jël foofu ca euh, foofu ca Turquie après ma jël Mamour ah, Samb soo soog a jël ah, xam naa yaa ngi ci ligne bi yaa ngi ci ligne bi damay jël Ousmane Ndiaye jël Mamour après jël sëñ Mor ah jël Ibou Ngom dinaa jël euh, nu mu tudd euh, sëñ Abdou foofu ca Maroc euh, bala musa moom ma nga foofu ca euh, Canada ak kii di Marcel Diagne ca Suisse kon damay njëkkee Turquie ah Ousmane Ndiaye Ousmane asalaamaaleykum Ousmane asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Amath. mbaa jàmm rek ngeen. ay ziar naka mbokki Istanbul. waaw Istanbul alhamdulilah fii ça mi ngi mi ngi tane. waaw déglu naa commencement débat bi parce que temps yëpp maa ngi koy suivre mais xaw na am njëriñ ci benn côté je pense que Karim doomu sénégalais la comme ñëpp dafa am loo xam ne nag nit ñi war nañ ci bàyyi xel mooy Karim bi muy jàng jàngewul suñu réew. bu mu demee aussi ba nga xam ne maa seen liggéey ñëwul Sénégal liggéey si loolu jara bàyyi xel la je pense que d'après information yi ñu am simple fonctionnaire la woon tànk bu nekk Londres ñaareel ko mooy politique dafa bëri risque doomu aadama la tey am na lu ko dal mais il faut qu'il assume jël ay responsabilités cest pare tëdd kaso parce que loolu aussi ci ci politique la bokk man du ma ne bi ñu def ci moom baax na wala baax c'est justice qui a décidé donc na arrêté assuré ay responsabilités ko sëkk parce que papaam bii tey la. xam nga donc dafa am nit côté boo xam ne bu la fay yàlla nattoon boo nattu laa ko mën a wax am na côté boo xam ne bu la ci nattu dalee ci métier bi ngay def il faut da jël say responsabilité en tant que góor c'est-à-dire parce que tey information yi ma mujj a jot bokk après xaw ma ñu ne Ablaye Wade moo ko wax xaw ma xaw ma Karim moo ko wax bon bàyyi na bàyyi na mbir mi ak ci loxo Serigne Touba je pense que aussi yooyu am na wax yoo xam ne amul sens daal fañ koy waxee parce que je pense que Serigne Touba ci boppam am na côté boo xam ne waruñ ko fa sa di ko fa tudd parce que nekku fa parce que yaa ngi may dégg Amath li ma dégg naa sa baat kay waaye li ma dama d'accordul ak yow. waaw ci ban côté. ndax sëñ Touba moo liggéey li nga xam ne liggéey na ko ba ku ne ak foo munti ne ci jafe-jafe boo munti ne nga mun koo yaakaar tàllal ko say loxo ñaan ko Karim bu ko neexee yaakaar ko tàllal ko ay loxo mu roy ci moom kooku kenn mënu ko tere benn doomu aadama. loolu am loolu la def nag man dafa am fu ma commencé mooy. Amath doomu aadama métier boo ci nekk di ci yëngatu cest am na da nga ciy xaar bu bon ak baax gis nga politique ku ciy nekk fi mu toll nii xaaral tëdd kaso parce que saa su ne mën na laa dal c'est-à-dire bu mu la dal rek ngay caalit parce que loolu amul sens mais Nelson Mandela bii tey nga xam ne mooy muy mooy royukaayu Afrique moom la ci toro mais vingt-sept ans lañ ko tëj di ko toroxal vingt-sept ans lañ ko tëj ko toroxal li mu daj amul président africain bu daj loolu pourtant tey boo dee Afrique du Sud malgré nekk mais dayo ba mu am Afrique du Sud amul benn président boo xam ne yaakaar bi ne sa dund di nga am dayoo bu toll noonu je pense que loolu mooy responsabilité doomu aadama nit daal ak lépp loo mën ci def ci àdduna jëlal say responsabilité su la ci fekk nga xam ne loolu la ça ne dire que ko tëjee carrière politique am day yàqu mbala dootul mën a nekk président de la république bon oh, mën a nekk sa président de la république bu ko yàlla tuddee da koy doon mais nag peine bu ñu ko tëj foog mu góorgóorlu muñ jël ay responsabilités am xam ne ce sont les risques du métier te nag bu ñu fàtte mën na am sa mënoon na am sa que ne tey Karim bu papaam doonul woon président de la république ñun sénégalais yi mën nañ ko bañ a xam parce que amul benn signe booy xool passé amul benn signe boo xam ne mën nañu ko won que ne Karim mi véritable sénégalais la amul benn signe même ci parcours scolaire am parce que jàngewu fi bu mu bi muy jàng Paris bi mu paree ñëwul Sénégal liggéey si fi Karim bi papaam doonee président dañu xëy rek gis ko Sénégal ñu jox ko ay poste ministériel yoo xam ne macha allah am doole donc loolu nag soo ko jëlee mu am ay tolof tolof yuñ la tuumaal mbala yu la ci dal da ngay jël say responsabilité àdduna yemul ci benn fan yemul ci ñaari fan xëñ na tëdd bi ci moom xëñ na gënul ci moom en tout cas il faut mu jël ay responsabilité tëdd pen bi bu jeexee nag mu xool moom ban ban léegi lay mëne nit tey ci métier nga nekk rek ngay caalit parce que loolu benn du yëfi pour ñaar du yëfi jullit parce que sëñ Touba bu muy wax naan royukaay la d'accord sëñ Touba kenn kenn du natt sa ay kenn mënul natt ay mbiram mais nag loolu dafa yéex dafa yéex j'espère que d'accord nga man ci li ma wax. ah. xalaat la rek bu ñu mën a respecte wante de. Hmm. royukaay daal la ko jël moom teg na ko foofu. jàpp na ko non il a parfaitement mm. loolu moom du ñu ci am lu ñuy discuter. Mm. Ah, ko mais ne la yéex na ko jël royukaay. ah déet déet bul xam ndax daan na ko jël royukaay ndax xam nga li nëbbu woon xëy na tey lay soog a feeñ xëy na tey lay soog a nekk ci euh, diggante boo xam ne si lay ñuy mën a wax lu ñu daanu woon wax. Amath dafa am lu ma la wax si ginnaaw tuuti. mooy dama ne la. Mm-hmm. ñun mën na am ñun Sénégalais quatre-vingt-dix pour cent ci ñun. Karim dama ne la papaam bu nekkul woon président de la république mën na am sa ñun ñu ci bëri duñu ko xam. muy dëgg. parce que jaar-jaaram moo lay woon lool. Mhm. parce que benn première chose bi ma leen ngi njëkk jox rek mooy par exemple tey boo demee bañ naan la Karim c'est un franco-sénégalais xam nga loolu lu xaw a doy waar tuuti la. bien vrai que suñu loi nangu na lool. mais xaw a doy waar mais dara parce teg tànk fii teg fële. Ousmane bu fii da nga dem fële. Ousmane Ndiaye jaata xëy na day la waat ci yow mais man miy juf day waar ci man ndax sama doom ji petit pilo mi toog euh, sénégalo américain la wala américano sénégalais bu subaa bu amee ay nomba tànk foofu ca foofu ca Sénégal du doy waar ci man ndax sama doom la maako ko jur te maa ngi soxee koo Tambacounda mu ngi nii am na am na ñeenti at ren tabaar fa kàlla dem Sénégal mun na fi toog am fukki at ak juróom musul dem Sénégal. est-ce que bu demee Sénégal nag day tax du nekk Sénégal la Ousmane foofu du ma ci ànd ak yow sama doom laa lay wax de waxuma la doomu keneen waxuma la doomu Ablaye Wade waxuma la doomu keneen sama doom laa lay wax mi ngi nii toog. sama ah, du benn ah, c'est la même chose Pape non non non Pape li mu wax c'est la même chose c'est la même chose. il dit que Karim franco-sénégalais mon fils est sénégalo-américain ou américano-sénégalais Pape munoo munoo fa dindi une différence Pape une non on ne parle culture ce foofu moom Pape munoo fa dindi dara ba du nekk la même chose c'est pas possible. c'est pas ah, possible waaw Ousmane. Amath euh, bon exemple bi ma lay jox je pense que am na côté bi may waxee mais léegi ba dafa mel ni ba léegi comprendre ma c'est-à-dire xam nga ñun. xam nga loo dafa am loo xam ne dañ ko war a bañ dès maintenant c'est-à-dire que ça ça mooy Amath gis nga ñun ay sénégalais ñun mënuñu toog ci dëkk bi Sénégal mu neex mu naqadi ñu nga fa buy taw ñu nga fa mm. buy naaj ñu nga fa xëy xëy rek duñu imposer ay nit ñoo xam ne ñun li ñuy dund dunduñu loolu réyalité yi nekk ci réew mi xamuñu ko en tout cas maa ngi maa ngi lay bàyyi peut-être am na ñeneen ñu war a nekk si bi mais daal sama dernier mot daal sama dernier moo daal mooy leen mm. li ma la wax daal en tant que homme mm-hmm. en tant que responsable waaw waaw day arrivé am na koo xam ne ñoo ko ëppoon doole ëppoon ko dayoo ëppoon ko lépp te li ñu daj ci politique dajagul genn wàll je pense que moom papaam sa war na ko jël exemple parce que Ablaye Wade quand même malgré doon na président mais il a beaucoup souffert sur le plan politique. parfaitement. mais lu tax moom loolu mënu ko nangu mais affaire bu ndaw rek quatre ans quatre ans ñu bëgg la ko six ans ñu bëgg la ko téere ku mel ne benn scandale te yow nga doon jeune war a mën a doon lu ne bu mu caalit quand am na lu ko dese. mais nañ jël ay responsabilité am parce que loolu mooy weccet wi weccet wi weccetu politique bi rek mooy génn bon c'est normal. asaka bi la y a des y a des risques génn noonu. ah c'est normal quand am na solo jërëjëf Ousmane. ak mbala mu naqari mais nag du saa yu caalitee rek. Ah, ah. bi bëgg tukki parce que nit moom du fonctionner noonu. jaajëf Ousmane. ok jërëjëf Amady. di ko jaajëfee di nuyu waa Istanbul yëpp euh, Mamour bismillah. allo Amath maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi leen di di wax ni que man normal woon woote parce que pour man l'histoire de Karim Wade c'était fini on en a fini avec pour man bi verdict bi wàccee loolu rek dem comme comme on dit aujourd'hui je suis vraiment je suis je suis je suis euh, euh, euh, xaw ma sax ban terme laa utiliser sama xol dafa tàng quoi parce que aujourd'hui ñun ñoo fi nekkoon si rajo bi man pour commencer lu ne ñekk ko Karim on l'a accusé de tous les maux que def na def na on avait la certitude man ba su ma jëloon kaamin door sama loxo kat dafa saa si te mën a samay morom que on avait demandé que Karim ñu punir ko Karim dañ doon ñaan yàlla ñu punir ko ñu jugé ko ñu ñëpp ñu ànd yàlla def eh, ñaan biñ doon ñaan ndax niñ ko bëggee wala niñ ko bëggeewul am na mais dara am na on l'a puni et aujourd'hui le lendemain de son procès au lieu que xalaat que il va se repentir peut dans deux ans trois ans il va revenir sous d'autres cieux non non non automatiquement le lendemain on en fait un victime te la même chose avec li muy def ñun fii ñu ngaañ ko fi c'est-à-dire ou bien dañuy mën a nekk ñun ñu consistant wala ñu bañ consistant mooy lan tey mënuñu fi nekk démb mu wóor ñu ni avec certitude jusqu'à la euh, euh, l'extinction de de xaw euh, ma du soleil que Karim Wade def que le lendemain parce que on l'a puni on l'a li ñu doon ñaan am na ñu bëgg ko nekk mu nekk victime que ñuy douter man je douterai jamais que man li ma doon wax démb moom laa tey Karim c'est un hypocrite il a volé il aurait dû avoir le courage de se repentir lan mooy repentir yàlla daf ko nangu mooy da ngay def li ngay def après nga jéggalu soo jéggalu nit ñi baal la que tu peux renaître de tes cendres mooy lan dem nga prison tu que on t'a pas privé de tes droits que tu reviennes petit mais c'est cest dire cette hypocrisie de vouloir s'adapter à toutes les situations vendredi passé les gens du PDS disaient tout haut et fort que Karim suñ ko condamné le 23 dëkk bi dafay tàkk non ba ñëpp gëmoon ko lundi qu'est-ce qui se passe le condamne ah non non condamné nañ ko on n'acceptera même pas que ko Macky doon doon doon kii doon def euh, euh, kii de grâce na de grâce présidentielle ñoom duñu ko sax bëgguñu ko sax accepté wuñu ko que léegi il préfère que mu toog le mardi qu'est-ce qui se passe il devient victime mu ngi koy nangu Karim kañ la nangu lii Karim su doon dox yoonu Sëñ Tuubaa du egg fii parce que kuy dox si yoonu Sëñ Tuubaa doo def lu bon ba ñu lay jàpp c'est-à-dire euh, c'est que il faut qu'on arrête de prendre les Sénégalais pour des pour euh, euh, excuse-moi du terme mais pour des moutons de pagne wala pour des ay ay buubu golo sénégalais du buubu golo man sénégalais laa ci du ma buubu golo ku nangu nekk buubu golo sa affaire la Karim il a fauté que aujourd'hui ñu jël ko di ñu andil ay affaire sëñ Touba xëy na sëñ Touba xëy na euh, comme sëñ Touba jaar na fi man naa fa jaar mais écoutez donc man tamit je parce que kan si ñun moo bëggul jaar ci yoonu sëñ Touba kan moo bëggul am li sëñ Touba am la mu liggéey jaar kan moo ko bëggul am su fekkee pour am li sëñ Tuubaa am lan la euh, euh, da ngay dugg prison mais na duggee prison loolu mooy wax ji Nelson Mandela ñëpp xam nañ ni que tëj nañ ko 27 ans à l'unanimité ñëpp xam nañ ni ko tooñ euh, kii le président serbe xaw ma nag ma nag serbe dañ tëj ko kii Charles nañ ko si prison moo xalaat ni dañ ko tooñ xam nañu liñ ko tuumaal am na ñoom dañ leen di tuumaal am na ñoo xam ne dañuy def Karim dafa def cest il faut que ñun Sénégalais yi que nous cette majorité qui ont eu le courage de se battre contre Karim depuis sept ans on est contre Karim depuis sept ans s'est battu contre lui depuis qu'il a déclaré sa candidature on a tout fait pour qu'il échoue et que c'est pas aujourd'hui que on va on va se euh, euh, ñu tëdd guddi gi yeewu le matin mais est-ce que est-ce que c'est vrai que man euh, Karim li ma ko doon bàyyi loolu la mais écoutez ayons le courage même si on euh, mais peut-être que euh, euh, ça veut dire que ñun ñun ñun ñun ñëpp ñun ñun ñëpp dañoo tous ces millions de Sénégalais là qui étaient contre Karim qui l'ont accusé de tous les maux de l'avion de patati des postes qu'il a pris il y a il y a l'ancien directeur de l'aviation civile qui dit que Karim daf ko woo il a traité de tous les noms que tous ces gens là ñun ñëpp dañu ayons le courage de dire ça que maintenant moom Sëñ Tuubaa dugg ci xolam wala Isa Isa bi nga xam ni moom la yaayam gëm yaayam euh, chrétienne la wala leneen an leneen c'est son problème à lui c'est c'est c'est personnel devant la justice la nga gëm ak la nga gëmul amul importance parce que su fekkoon la jullit du rey jullit cest dire man li ma gën a li ce qui me frustre dans dans ce ce problème cest dire non mais non non non daf mel ni man tey ma ma ma ma euh, j'accuse Amath de tous les noms que Amath moom moo sàcc sama sàcc yóbbu ko prison enferme Amath de cinquante ans ma jékki-jékki est-ce que ma porte plainte mais écoute c'est les conséquences Karim a fait il a il doit assumer les conséquences il ne sera pas le dernier Gbagbo ngi nii nekk prison Charles Taylor ngi nekk prison d'autres même sont morts xëy na moom sax deewul euh, Blaise Compaoré ngi nii daw na Karim a, a eu il a atteint l'apogée de sa vie il a tout eu à 44 ans Karim lu mu am yow Amath man mii on n'a même pas vécu un millième de ça lan la ñu gënee papaam def politique papaam liggéeyu xaalis bi papaam euh, hérité wu ko papaam nekk ci milliardaire politique la def nous on a décidé de faire un autre chemin am mu def politique Karim tout ce qu'il a vécu l'opulence qu'il a vécu parce que papaam dafa def politique ñu dénk ko Sénégal mu jël transfert ko doomam mais qu'est-ce qui euh, mais mais mais euh, euh, lan ban mérite def politique jël jox ko ko ñun dañuy fal laa dañ ko faroon pour pour mu jël doomam def ay ministre ay ministre affaires yooyu Karim man man je suis sénégalais je suis né au Sénégal j'ai grandi au Sénégal sénégalais la j'ai jamais entendu loolu xaw ma ne sax Karim am na doom Amath yow miy milité PDS yow mosoon nga gis Karim wala xamoon ko c'est question que je te pose à personnel yéen ñi doon milité PDS ngeen lu def ngeen ko PDS xamoon ngeen ko et pourtant la mu deful PDS yéen ñi defal leen ñu ne militants des jeunes ont perdu leur vie ou bien euh, naka tudd euh, ont perdu leurs études ñu dàq leen wala dara yàq seen jàng ndax Abdoulaye Wade ñooñu ñëpp lan la leen defal ñooñu ñëpp il le faisait au nom d'un idéal pour que ñu am euh, njiit xam ni Sénégal da kay développé et aujourd'hui les gens me disent c'est c'est lamentable qu'aujourd'hui qu'on discute comme quoi que xëy na xëy na sëñ Touba mu jaar foofu la Karim c'est-à-dire mais mais mais mais mais waxul dëgg laa wax c'est de l'hypocrisie am na solo de repentir ah. de repentir am na solo Pape ñu gàttal ko parce que y a beaucoup de gens qui attendent non non non amaat nag amaat nag amaat amaat waaw personne nous avec avec euh, euh, ak seen njiit on a eu des débats ici on a été convaincus nous en tant que groupe je dis nous il faut qu'on ait le courage de dire que Karim a a a fauté maintenant c'est pas à nous aujourd'hui de venir et de dire est-ce que euh, euh, juumuñu woon. non non non non non c'est-à-dire que xam nga non non Pape Pape Pape Pape Pape il n'est pas question de dire que dañoo juumoon wala juumuñu ba tey déggoo fi ku ne la ne Karim a fauté dañoo juumoon déggoo ko fi tu n'as pas entendu ça moi euh, je me garde. je me garde man je me garde je me garde moi Amath de dire Karim a fauté ñi nga xam ne ñoo nekk ci tribunal ba ñi am seen preuve. il le disent xëy na xam na fu ñu ko teg non dé déglu rek Pape non xam nga aussi xam nga xam nga Pape Pape Pape Pape Pape Virginie Pape Virginie il est dangereux aussi de prendre ses croyances par la vérité absolue dafay dangereux man Amath je n'irai pas jusqu'à fi nga dem ah tu as le droit de le dire Karim à fauté tu as le plein droit de le dire. moi non, je l'ai pas man dit on n'a pas eu de débat ici comme quoi Karim a fauté toi dama la on parle dans ce domaine bien précis de Karim a dit que euh, Serigne Touba a fait sept ans en prison il est sorti triomphal ñu ne ma la il a le plein droit de suivre les traces de son guide religieux ceci n'a rien à voir il a fauté. il n'a pas fauté c'est que nous qui se disons intellectuels, qui se disons posés, qui avons euh, une discussion, etc., qu'on en que mon croyance, c'est parce que, c'est parce Non, mais, mais, mais pas ce jeu-là avec moi, ne joue pas ce jeu-là avec moi, ça ne pas. Non, non, non, non, dégloule, pape, pape, pape, pape, dañuy déglonté. Dañuy déglonté. Ce qui est dit ici, tu peux te prendre pour un intellectuel. intellectuel, ça libre à toi. Libre à toi non, de te prendre pour un intellectuel. Moi, je ne me prends pas pour un intellectuel. Ce que j'ai dit est très clair. Damani. Je ne dis Non, Damani. Non, non, non, non, non, non, C'est-à-dire que tu veux actuellement essayer de euh, minimiser wala book jéem a tuutil les débats que ñu ñu fi am débat yi lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw. ñun débat yooyu la ñu tollool kon débat yooyu la ñuy def waaw waa mais déglul mais kon kon kon bul wax ni kon kon bul wax ni euh, débat intellectuel yi munoon nga toog bañ a bañ a woote loolu du sa cër xam nga problème bi mooy tu as une position non bi bi bii laa wax bi bii laa wax dama ni bi mais non non dama ni c'est parce que xam nga wax ji fu mu nekkee Pape yow tu as yow yow yow tu as condamné Karim mais Karim ne s'est pas condamné Karim Karim n'a pas volé Karim dit n'a pas pris l'argent d'autrui mais Pape ce facteur là mënoo koo bañal Karim mënoo ko ko bañal. Euh, combien de criminels combien de criminels ont déjà avoué qu'ils ont commis un crime. Mais, bien, mais il y, y, y, de personnes ko a condamnées, nous te pendant ans, alors qu'il y avait une erreur mais il a une marche, même, même si, pape, je sais pas, une marge d'erreur, même si y a une marge d'erreur de 0,00001 pour cent il faut le prendre en considération Pape il y a pas d'absolu il y a pas d'absolu dans cette vie là suñu diggante ak yàlla ko dama ma toogee yàlla taxaw mu am na loo xam ne am na loo xam ne mënoo koo bañ mooy même s'il y a un pour cent de chance qu'il y ait erreur judiciaire dans le cas de il faut que l'on l'accepte. Il n'y a pas d'absolu dans cette vie sur Terre. Amad, Amad, Amad, c'est dommage qu'aujourd'hui, on est on, on, discuter. Ah bien sûr, ñun de jaral nañu ko Pape. non na la ko bañ a jaral yow mais man jaral na ma ko Pape. kon kenn du tëj kenn kenn du dóor kenn. justement Pape. a tout donc toute chose dans la kon kay jeex na kon kay jeex na jeex na Pape kon bàyyi ko erreur bu fekkee ni am na ci boobu Pape non xam nga la moo métti la moo métti c'est-à-dire c'est de prendre ce fil de Sëñ Touba il a il en droit malheureusement il en a le droit malheureusement mais Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck bi mu ko fi defee. ñun Cheikh Yérim moom xoolal Cheikh Yérim Seck moom yonent bi ci waxam la la woo moom ci waxam la woo. ku nekk am nga droit woo ku la neex mais mais mais kon kay jeex na ku nekk am nga droit woo ku la neex Pape. waaw mais est-ce que. c'est normal munoo ko bañal nit ñi Papa. woo yàlla. non Amar euh, euh, xam ni ce qui nous retient, c'est la raison de notre, de, non, on est en train de jouer sur rien du tout. À chaque, fois qu'il y a un détournement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se réfugie derrière qu'il y désert Saint-Touba pour, une fois qu'on a commis des bêtises. Si on bêtises, quand je vole de l'argent, je me, je me protège derrière Saint-Touba. C'est des nouveaux pays, du du mour de Saint-Touba, ñu leen di jox tout bob. Ñu da ngay am fula waaw ah, ah, man jërëjëf Amath. Pape Virginie di ko eh, eh, jaajëfee bu eh, moo xam. <laughs> <laughs> di ko jaajëfee bu baax Pape Virginie depuis foofu euh, nu mu tudd Washington DC alors euh, Mor maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Jokalante Baal ba comme mbokk séeréer. waaw na nga def moom na nga def. maa ngi sant maa ngi ak jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag. bisimilah ñu déglu la Mor. Euh, waaw dama doon bëgg a dugg ci waxtaan wi rek. ayca bisimilah waxtaan wi kenn ku ne ah, ah ñi ngay xalaate foofa rek ay maanaam wax lii mënoo gëm li nga gëm ne lii nga gëm nag da ngay da ñëpp ne li nga gëm la ñëpp war a gëm loolu moo mënta nekk moom ab taalibe la def nañ ko loo xaye mënu ci dara xam na droit na ah lii ñu ma def kay ki nga xam ne mooy sama yaakaar ah yàlla. Euh, exemplaire euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp te yàlla dana roy leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu def def leen ko lu mu def moo mooy mooy li lu mu wax mooy li comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu roy moom itam bu na roy naa ci sëriñ bi sëriñ bi wàccitu yoon nit ki nga gëm gis aw doxinam ah, mu doy la ma nga jox ko sa bopp gannaaw yàlla kooku boo ne dam moom lay roy ah am nattu la dal na ci kawam danaa xool kat ki nga xam ne mooy sama royukaay jaar na ci nattu nam ko buñu woon na laa ko buñe ah kooku am na ci plein droit mais dama lay wax rek leen amar séng dafa am ku wax feeñ te it mbir mi dafa nekk mbir moo xëy nit ñi dañ koo muñoo muñoo muñoo muñoo muñ ba mënatuñ koo muñ léegi nag il faut que ñu waxees ko parce que dañu wax sa xalaat mooy lan Abdoulaye Wade li ma def Sénégal ju Diouf defu ko te noonu yi Ablaye Wade am Abdou Diouf amu ko muy benn ñaareel ba Macky Sall di doom mi ngi fii xam nga gën gënu sa doom gënu sama doom te mi ngi fii di jàng ñu di ko fayal te lañ koy fayal xaalis Sénégal lañ koy fayal jox ko ay garde corps wëtal ko kër ah, di ko toppatoo yow kenn xamut doomam école bi muy jàngale yaa ngi ma jublu kon bu ne Karim gënul Sénégalais xanaa doomu Macky Sall moom it gën sa doom ji nga xam ne sëriñ ba bu xëyee yaay ŋàbb ci loxo bi yóbbu ko mu jàngi lu tax doomi Macky Sall ñu ko wëtal ay garde corps ah, ñu ko defee surveille guddi ak bëccëg jox ko kër spécial ah seen nga nit ñi dañuy waxte li ñuy wax duñ ko seetlu te doomi président mënta bokk ak doomi koo xam ne sëriñ bi doo président yàllaa ko def yàlla moo sàkk ay doomu aadama am ñoo xam ne da na a teral am ñoo xam ne ah ñi ni toroot ñoo leen di dimbale loolu dafa am te itam ah, ah, ah, Karim Wade soo seetee ñi nga xam ne dañ koo contre comparé rek a tax loolu lañ contre Ablaye wadd moom lañ contre Karim sëñ ko Ablaye Wade Karim buñ bokkutoon faneen fëdul fi ñu bokk ah ñu bari bëgg leen mais nag dafa am yoon woo xam ne boo ko bëggul ku ci aw doo ko bëgg te ñun yépp xam nañ ko xam nañ ko dañoo foofu sunu tànk teg ko ci rek àll suñu ngor mais li xaw lépp du am na ci loo xam ne du politique la bañ nit ki la xam nga leen mooy bëgg nit ki mooy su defee lu baax nga ne def na lu baax boo defee loo xam ne juunoo di ko nga ne kii def na lu juunoo di mais gëmm si bët taraj rek ne baaxut baaxut baaxut kooku moom mbañee lay doon du politique te Abdoulaye Wade dafa bari ay nit ñu mel noonu ñoo xam ne saay bon addoo rek nga xam fi ñu fare ñu ko sax nëbbu seen xol en tout cas de Abdou la nekkoon bokkut ak ñun aw yoon te mën nañ ko yekk lu ne mais dañ ko mas di suturaal mas di ko ormal kenn ta laal fi nga xam ne fi la bokk gëm ko mais Ablaye Wade saay bu ñuy jóg am na ñu bari ñoo xam ne ah ñu bari quatre-vingt-dix pour cent yi lim doole am te tax ñu bañ ko te murit yëpp xam nañ ko nag dañu ànd ak ngor rek dañu ànd ngor ak sago mais li ñuy wax Ablaye Wade metti na murit yi naqari na leen li ñuy wax am euh, Karim metti na murit yi naqari na leen te it mën nañ koo faj waaye dañu fab lépp waaye ko ci loxol yàlla am na ci ñoo xam ne politique ñu parce que ku toog gis Ablaye Wade fi mu fekk Sénégal ak fi mu ko indi ak doomu aadama yëpp mën ca teg bët nga mën a fa ah, yàlla tiim la nga mën a Ablaye Wade yàq na réew mi Abdou Diouf ko gën kooku nag laneen lay niru te it xam nañ ko kat dañ leen bàyyi ci biir ci kenn ko ne am nga loo gëm mais li ñu ñor mooy Sénégal Sénégal lañ la jox fekk nga ko fii foo ko yóbbu ñun loolu moo ñu ñor parce que réew mii nga xam ci lañ nekk bala ngaa nekk président de la république da nga wax nit ñi bu lu wér fi nga bokk ñu xam ko waaw Abdoulaye Wade fi mu bokk da koo nëbbuwut làqatuwu ko loolu da koo bëgg gëm ko di ko dox di ko wax ñu bari ci loolu lañ ko bañee waaw noonu ya topp noonu ya toppoon Sëñ Tuubaa ah noon yooyu ba tey ñoo fi nekk mais sëñ Abdoulaye waxoon na ko yeneen noon yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu ngi fi seeni sëtu fi seeni doomam fi tey jii lañ fi gën a nekk mais yat wi leen daa rey di leen toroxal mi ngi fi di fi jóge yoonu murit moom day day kaw rek la jëm kenn mënu koo xeex ku ko xeex wàcc. loolu dëgg la jërëjëf sëñ Mor. waaw jërëjëf sëñ Mor Seck foofu ca euh, New York. di wax mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci euh, état de Texas yëpp wala sax boo fu ko gën a jege. alors xam leen ni l' association des sénégalais bi nekk fii ci Houston mi ngi organiser benn week-end pour la célébration des cinquante cinq ans Sénégal dañuy fas yéene nag euh, bureau bi bees bi nga xam ne monté nañ ko keroog dimanche rek ñu ngi woon réunion présidente kër présidente Dégène Diop alors concocté nañ leen programme boo xam ne tabaar fakala pour week-end bi la le samedi dina am benn. soirée euh, dansante bu am solo boo xam ne gëj na fi lool lool lool fii ci Houston Texas alors le dimanche barbecue la le dimanche barbecue ak match de football tournoi de football ak tournoi de basket ak ay jeux yoo xam ne pour xale yi la ñu indi suñuy doom ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñëw di fête ay jours yoo xamee ni seen dëkk bi ñu jugee la da ciy daal di am solo alors euh, les 4 le 5 incha allah Houston Texas moo aaye donc si vous êtes à San Antonio Austin Dallas Corpus Christi fépp foo xam ne Texas la fet la déplacement ñëw leen alors dana nekk weekend de célébration boo xam ne ah, doo leen ko rëccu incha allah ci kàttanu borom bi alors Ibou si yow si la yow la ñuy daal di ñëw jox la kàddu gi. buñ ci jugee après jox sëñ Abdou Lahad foofa ca Maroc. Euh, bala Moussa moo ci daal di tegu foofa ca Canada Marcel Diagne tegu ci waat foofa ca euh, Suisse après ñu dem Espagne fekk fa Ngañ. Euh, moom it dinañ ko jox kàddu gi euh, Gelawaar moom mi ngi fii ci euh, Washington après ñu jox Supa Ngaaka mi nga foofu ca New York après ñaari Houston yi benn bu terminé 17 bi moo te moo jiitu benn bu terminé bi alors bismillah Ibou balaa ñuy dem ci sëñ Abdoul Ahad ok bonsoir. man eh, je suis très horrifié ci débat bi nu mu tourné woo parce que question bi nga posé woon au début dama ragal ne gars yi xaw nañ ci jàdd tuuti tu sais c'est bien d'être un intellectuel il y beaucoup d'ailleurs mais c'est encore mieux merci un esprit eh, c'est c'est c'est c'est mieux d'être un esprit libre maanaam mooy lan mooy esprit libre mooy nit koo xam ne bu ñu la laajee ci benn question ce esprit free mu bañ a nekk benn esprit bu partisan compte tenu de benn nit mun nga ci bañ a tudd sax turu nit mais quand je comprends que ndeysaan nga poser benn question sur un jugement qui a été prononcé nit ki ne je m'en remets à diw mun nga ne je m'en remets à Dieu ñenn ñi je m'en remets à lii ñenn ñi ne à l'autorité suprême maanaam cour suprême wala yàlla nga posé question ba mu ndeysaan kii njëkk a dugg yaakaar naa sàmb wax ci wax ju rafet wax ci waxu yërmande aussi mais nit topp ci nga posé ko ci question ci loolu aviam ci le fait que nit ki choisir nangam moi je commence à entendre une réponse Abdoulaye Wade jugé Abdoulaye Wade man man man man man ànduma Abdoulaye Wade ma ci moom dama ko guerre mu dem mais quand on pose une question quand on pose une question sur ni nga xamante ne Karim noonu la jële procès bi noonu la ko accueillir mu dellu ci Serigne Touba la personne commence à juger ab Wade Abdoulaye Wade lii la def lii la def ba si yàgg PDS ba si yàgg Sindiély ba si yàgg Pape Samba Mboup mais ba si yàgg mu ne non non non Karim sàcc la warul kii ma ne attends nit ki noo munti mel droit de culte mënuñu ko dindi ci nit loolu ñi gën a soxor ci àdduna ñooy dindi droit de culte kenn du ko laal gis nga États-Unis bu ñu lay rey sax sa dernier souhait dañ lay jox bible bu ñu lay rey dañ lay jox sa bible ne la ban ñaan nga bëgg def c'est bureau la bureau maanaam mu lay jox bible ñun ñu bëgg maanaam nit ki nga xamante ne tey am na ñoo xamante ne ci ni ma dégg fii tey dama ci tiit parce que am na ñoo xam ne bu ñu toogoon place juge bi waxuma la droit civique et droit civil dinañ nangu sa droit de culte mooy maanaam yow sax buñ la jugé dangay ñàkk li lépp ba pare dangay ñàkk sax yow waratoo sax gëmati dara yow amatoo droit sax gëm nit amatoo droit sax jël comme nit référence mais nit kooku dellu si ne attends gars bi waxul waxul mais mais man anduma Karim mais Karim il s'est défendu nu mu défendre moom moo tax tey jii nii correctionnel gars yi jugé que justement corruption amul et que ñu refuté ndaw la moom moo doon wax ñoom eh, procureur bi ne leen ne chaque fois que je pose des questions tu mais benn affaire laa ci gis tey wallahi je le connais pas faale wu ko mais benn affaire laa gis pendant tout le procès dal ak yar laa gis ci moom si je suis objectif et un esprit libre maintenant prison dafay yar mais léeg tam dina am ñu si dugg jóge fa yàqu am na ñu bëri ñoo xam ne dañ fay génn ñëw ànd ak sax leneen loo xam ne borom bi day gën a nekk ci ñoom parce que borom bi day baale ñu ñoo dul baale mais ci biir waxtaan bi toujours mu ba nar a dérivé parce que quand on dit ay affaire euh, euh, couleur non c'est-à-dire que kii papam kii wala français français mais ça c'est très grave comme ni ngeen wax nous sommes à l'ère de la globalisation Karim tey bu demoon France dañ naan il est trop noir bu demee ñëwee Sénégal ñu ne il est trop blanc ñun suñu doom yi ñu fi jur doom yëpp ak tubaab ci année yi di ñëw nos enfants auront non, les mêmes problèmes bu ñu deful attention mais Ségolène Royal sénégalaise la française la elle est née elle est née à waaye donc foofu dafay commencer am deux poids deux mesures moi je trouve que ci li ma gis ni Karim saalitul vraiment parce que saalit bi mooy ñu jugé la ba pare nga nekk di wax lu ëpp parce que ñoom bàyyam fu ñu ko waxee ne wax na lu ëpp wax na nii wax na nangam mais bu fekkente ne da tribal ci nit nga antagoniste ci ba nit kooku bu nee sax man sëñ Touba laqatu naa ci moom man jox teg jox naa sama bopp sëñ Touba mais dut boobu Karim nañu jël léppam mais nañ ko may parce que gis nga nag droit de culte ngëm-ngëm sa jabar sax noo di di ngëm-ngëmam ci moom donc dafa am affaire boo xam ne nañu ko moytu li gën a bon nag mooy que bu ñu duggee ci politique ak clivage ndeysaan moo tax ñoom Jean Paul Sartre waxoon nañ ko bu peut pas de la politique sans avoir les mains sales maanaam lépp looy jugé da nga ko jiital fa nga far les grands hommes yi fi nekkoon fi amoon lu baax boo ko gisee day mel ni signe mathématique boo nekkee fële tu positif boo duggee ci parenthèse tu es négatif Sidiki Kaba par exemple quand je l'ai entendu hier mais Sidiki Kaba mais c'est grand juriste c'était le premier africain bi nga xamante ne moom moo nekkoon président commission droits de l'homme yi mais bi ma ko gisee dem mu toog ak ni mu doon wax ma ne non politique moo doy waar parce que danañ la def wala ñu wax loolu loo xamante ne nii Tu n'es pas libre quand tu ne pas faire un jugement sans tenir compte d'une personne, ou bien d'un parti, ou bien de quel groupe, même de mon père. C'est-à-dire que man su may jugé benn affaire bu objectif ñun dañu bëgg loyaux bëgg solidaire nit ki boo nekkee esprit libre sa papa sax loo ko respecté respecté respecté am na noo xam ne bu fa taxawee nekk lu dëgg sa papa laa wax di nga ko dimbalee boo ko waxee ne loolu du dëgg waaye ko koy waxee moo am solo. Donc, je pense que nous devons part pour, à un certain moment donné, nous, on a raté l'occasion aujourd'hui ah ah. d'être unis. Parce que Taïdini, nous sommes d'accord, mais amaana def na lu rafet mais je juge pas le fond maa ngi jégalu. jërëjëf euh, di ko jaajëf bu baax euh, ah, Serigne alors euh, sëñ Abdou Lahad. asalaamaaleykum waaleykum salaam naka waa Maroc yëpp. ñu ngi leen nuyu di leen siyaar bu baax. jërëjëf ñu ngi leen di fay. di nuyu ngi si fay nañu leen. amaat ragal péete da day xañ a wërsëg loolu dëgg la ragal péete yal nañu yàlla mos si maanaam nit ku ragal péete dëgg la te moom avant muy euh, nekk ci li muy nekk nii ba mu jëbbaloo si yoonu yoonu murid rek ci la euh, ci la tegoon tànkam ci maanaam lépp loo xam si ne maanaam bu ko jafe-jafe fekkee bu ko si jafe-jafe euh, fekkee mu nangu ko ànd koog maanaam suñu borom comme que tey nag moom dem na ba nii ban tëj ko nii mu jël référence ci sëñ bi wax dëgg yàlla de référence la ndax Yusufa ci boppam maanaam dañ ko tumaaloon tëj ko ñeneen ak ñeneen ñu bari tumaaloon leen tëj leen ku kii maanaam dañ ko wax ne dañ ko ah, moo def nangam bu dee tuuma yàlla na ko suñu borom teggil en nag diw ah, kenn gënut kenn moom loolu moom suñu borom si bopp mu bind mu bind jaam yi yemale ndax moo bind jaam yi sa kenn ku nekk am na lu la jagleel ak lu mu la may ñun ñi nga xam ne nag man man soo jëmm man Abdoul Ahad Niass mii xam ne maa ngi bokk ci yoonu murit man de damaa jox lépp Sëriñ Tuubaa mu gënal ma ndey ak bàyyi gënal ma lépp te kenn ah, kenn gënu sama bàyyi loolu maanaam boo boo koy wax rek waaye na fooy dugg da nga xam ne bàyyi kenn gënu sa bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Abdoul Ahad foofu eh, eh, mu tudd Maroc di ko daal di jaajëfe bu baax a baax a baax alors euh, Moussa Bala Fofana depuis euh, le Canada Moussa bonsoir. waaw bonsoir sëñ Amath. mbaa jàmm rek nga sant bu baax a baax a baax. bismillah Moussa ñu ngi lay déglu namoon sa baat yaa une voix tellement rajo macha allah. ah <laughs> sant yàlla rek. <laughs> tey dama dama toog ma ne événement politique bi du du weesu te dégluwuma sa sa kër gu mag quoi. Ah. <laughs> ce ce sujet bi dafa dafa intéressant et puis yaakaar naa déglu nit ñi di wax sax moo dàq participer ci mais da da nga poser question en fait li tax sujet bi nekk sujet bu difficile c'est que sentiment def ci dugg. ngëm-ngëm daf ci duggu en même temps affaire république la ñuy wax donc foog ñu jéem a objectif euh, et puis dafa am aussi des conséquences politiques yi yëpp dafa laxasu ci ci ci même sujet bi nga posé moo tax aussi bon il faut que ñu accepter différence de point de vue yi parce que am na ñu nga xam ne logique ou sentiment bi la ñuy dawal parce que prison moom yaakaar naa kuy gor ku ne sa pire cauchemar mooy ñu tëj la kaso ñii nga xam ne kenn mosu ci dugg kaso yaakaar naa gént yi gën a bon ci gént mooy gént ñu tëj la ndax gor donc sentiment bi moo tax ñu bëri am aussi euh, benn réaction sentimentale am yërmande ah ñu di ko politiser aussi politique moom lépp lu nga xam ne discours boo xam ne boo ko développé jot xotu xolu nit ñi di ko développé donc Eh, mën nañ ne c'est légitime nit ñi di di politiciens yi di surfer sur ce sentiment là eh, sentiment bi tam nekk lu nga xam ne bon si on y réfléchit nit ki boo ko jëlee te téye ko deux ans mën nga susciter beaucoup d'interrogations ah sa bu mooy buggee ñëw sa question nag da nga ne eh, Karim Wade dafa delloo yëf yi ci ci yoonu murit daal non il dit que ni il a donné ah. une référence mhm. comme quoi que Seigne Touba était emprisonné pendant sept ans il revenu triomphant alors kon moom it dafay jël comme papaam ni mu ko wax dafay jël yëpp rek teg ko ci loxo Serigne Touba donc voilà et puis chacun interprète euh, selon son entendement. ah mais de toute façon xam nga yàlla moom daf ne ci alquran li bokkaale mooy li nga xam ne duma ko baale même sax boo ko jégaloo ma jégal la ko donc mën nañ ne nit ki moom foo mën a retrouver wu ci ci situation bu compliquée nga dugg prison nga def wala defoo te suñu justice nag nee na def na aussi nit ñi ñu jël loolu en compte suñu justice nee na def na après nag mën nañu discuter la justice mais nekk na ci situation bu difficile nit situation bu nga xam ne gor bu ci nekk mais delloo yëf yi ci yàlla la te yàlla moom mën na baal ku ne donc loolu man gisuma ci lu c'est une évidence du du mën a jarul débat mais mën naa ko comprendre buñ ko tegee ci dimension ne euh, nit yàgg na nekk ci nattu natt boo xam ne moo ci dugal boppam wala nit dugal ko ci mu ëlbiri ku ci yàlla man nag dama dib murit aussi juddoo bawal euh, donc euh, yaakaar sëñ Touba comme <laughs> yaakaar naa képp ku képp ku xam kuy sëñ Touba xam ay xasidaam mu def ci xasida yi loo xam ne jaam bu ci am jafe-jafe rek boo sëggee ci xasida yi gis ci lu la lu dalal sa xel te ma gëm ne sëñ Touba ñaan na ñaan yu nangu yoo xam ne nit bu ci bu ci bu ci bu ci góorgóorloo rek affaire am dina ubbeeku mais aussi ñoo xam ne tam sëñ Touba am na lu mu digle euh, sëñ Touba am na yoon woo xam ne yoonu jub toppatoo lu sa yoon nekk euh, bañ a jël loo moomul loo xam ne luñ naan li yonente bi naan li ñuy teree ngi nii li ñuy diglee nii ak la ca diggante bi la ca diggante bi na nga ko fa teg tax boo ci duggee li waraf naan du yow du yow mën a mën a yóbbu génnewu la ci politique nag daa am ay réalité donc man mën naa nangu jullit wala chrétien wala juif nekk ci situation bu difficile delloo yi fi ci yàlla lu normal la mën nañ ci discuter mais je trouve que lu normal la du ma ne amul amul objet am na objet mën nañ ci wax. <coughs> mais que dire <coughs> que dire des gens yi wax ni euh, mm. c'est une tentation am une tentative de vouloir amadouer la communauté mouride. xam nga li ma gën a xam nga politique politicien d'une manière générale xam nga sànq dama ne la affaire bi sentimentalisme def ci dugg parce que suñu yenn intellectuels yi erreur bi ñuy def mooy dañuy fàtte ni ñun on évolue dans une société très complexe. société bu nga xam ne nit ñi duñu am d'autres formes de valeur sénégalais bëggul victime sénégalais bëggul ku tooñ sénégalais dafa bëgg équité olof danaan la boo jekkoo da ngay tane olof da koy wax mag ñiy déglu bu ñu déggee xam ni may jub jublu ci wax jooju lan la boo jekkoo da ngay tane mooy même bu fekkente ne tu te retrouves en situation de force dafa am noo war mel euh, donc nit ñi dañuy dañuy comprendre ne euh, il y a beaucoup de beaucoup de sentimentalisme nit ñi bëgguñu sénégalais bëgguñu ku ñu victimal victimal donc politiciens yi souvent dañ koy utiliser on a on a on l'a vu du benn du ñaar du ñett Macky Sall tey rek c'est c'est l'exemple parfait de quelqu'un qu'on a fait subir une injustice euh, man dem naa Sénégal di waxtaan waxtaane nit ñu bëri liñ ma wax dañ naan ma daal Macky Sall ñu ngi koy wax lu ne mais jàmbur la jàmbur la ñu ngi koy tooñ mais mi ngi noppi nit ñi loolu lañ lay wax donc à un moment donné intellectuel du danga da war a suivre sa logique bopp danga nga war a aussi déglu nit ñi xool ci li muy wax ci gëm-gëm la ko teg ci diine la ko teg ci ci ci xelam tolluwaayu xelam ak gis-gisu àddunaam donc loolu boo ko dul analyser tout le temps da ngay da ngay rester dans ta logique rek ne ne non nii la ñu war a gisee nii la ñu war a gisee donc di ñuy li ñii ñi li nit bëgg a wax en fait mooy am na benn tentative de, de récupération de victimisation et puis nañu waxante dëgg procès bi duré na deux ans loolu tam ça a beaucoup joué parce que bés bu nekk journaux yi génn publier xam nga wax ne gis nañ lii gis nañ lii lii nit ñi dem nañ di ko dégg bu mu jigi ils se sont dit mais quand même ça fait deux ans procès bu duré deux ans dafa metti donc loolu rek bokk na ci tey bu waa PDS naan ñu ngi delloo yëpp ci yàlla delloo yëpp ci sañ Touba man du ma jugé kenn ci intention nit xëy na dëgg la ci ñoom je sais pas du tout mais bu ko nit ñuy wax day conforté moo tax aussi foofu laay loolu tax sax ma gën a bëgg a participer ci émission bi parce que ñun sunuy dirigeant yi bu ñuy jël li ñu naan prise de décision gouvernementale dafa am yoo xam ne da ko war xool xool ndax décision bi ma jël nekk bu nga xam ne naa ci mucc est-ce que équité am est-ce que parce que justice jaaxaan lay dëgg kenn waru ci te eh, bëri na ay man man yow xam nga ne Karim Wade ñun ñëpp ko fi ñëpp ko fi on l'a combattu et puis sax je ne dois pas même pas dire on a combattu Karim Wade on a combattu ce que représentait Karim Wade. justement idéal dañu amoon benn idéal beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent pas dépasser euh, ou bien ils ont trop personnalisé. euh, la personne Amin non, personnaliser euh, ce que les fonctions qu'occupait Karim Wade. mais ah, moo am. c'est là où c'est dangereux et c'est là où c'est dangereux malheureusement. dafa mais pour être équitable dafa am ci plusieurs niveaux. Euh, waa le, pouvoir en prenant justice bi ni mu mel rek utiliser ko noonu mu légitimement parce que man duma juriste duma dugg ci débat yi mais ñu jël justice bi ni mu mel noonu rek. appliquer ko sans pour autant que xam nañ ne assises nationales yi waxoon nañ ne il faut qu'on réforme notre justice mënoon nañoo def réforme en trois mois quatre mois convoqué magistrat yi def une belle réforme et puis juger mais bon <laughs> ils ont utilisé la justice telle qu'elle a toujours existé justice bi Senghor jëloon euh, utiliser ko contre moom Mamadou Dia tey jii injustice boobu moo tax ba léegi da dégg ay jayis ñu naan kii jayis la parce que y a une injustice li muy mën jur dafa bëri. dafa jur am na am na solo. am na solo bala cycle boobu la moo tax li nga wax juste pour li nga wax dëgg la. Mhm. mais bu ñu bu nañu def attention bañ a am parce que nit ki sànq euh, et tu raison de le préciser man mes enfants sont nés ici. tey ëllëg ñu fi nekkee yóbbu leen Sénégal ñu leen di toroxal parce que euh, voilà Canada la nationalité canadienne waay day doy waar moom un problème et donc moo tax homme d'état homme d'état dafa war a am fermeté mais dafa war a aussi réfléchir sur conséquence su acte yi muy jël parce que bu ci demee sentiment rek dina fayu ba fayu bi ëpp et ça va se retourner contre lui tey justice bi fi Ablaye Wade fekkoon muy justice bi nga xam ne moom la Diouf daan utiliser parce que bi ñu reyee maître Sey Diouf il avait beaucoup de pression sur la justice dafa utiliser justice bi teg ko de côté pour seral seral ba lépp jàll. ba lépp jàll am na am na solo am na solo Moussa xam naa. foog mu waaw justice boobu tey. moo fi nekk ba léegi. moo tax de xam benn phrase may wax moo ne. Mhm. je préfère une justice imparfaite qu'une impunité totale. parfaitement. xam nga moo moo benn pas la. bu ñu teg. Mhm. a beaucoup mhm. parfaitement merci beaucoup euh, Balla Moussa Fafana depuis le Canada. alors damay daal di dem euh, Suisse fekk fa Marcel euh, Diagne Marcel bonsoir. bonsoir Amath. comment vas-tu. ça va maa ngi Dakar. Diagne Dakar naka waa Dakar. ça va alhamdulilah. naa da ngi si jàmm. ñu ngi sant ba alhamdulilah ñu déglu la Marcel. en fait euh, li ma bëggoon wax en fait euh, en résumé monsieur boobu di door a dugg. monsieur Fofana monsieur Fofana ak euh, Pape Pape de Virginie. Mhm. ñoom en fait résumé nañ ko en fait man loolu la doon foofu loolu foofu loolu bëggoon développé ñoom développé nañ ko parce que man je ne comprends pas les politiques parce que c'est trop sensible ce débat de croyance parce que jog ne non lépp bàyyi na ak si loxo. maa ngi jég nu tudd maa ngi jël référence ci diw loolu tout tout un chacun a le droit mais aussi il faut qu'on sache que c'est-à-dire les politiques ils utilisent les les médias surtout man nekkoon naa ci procès bi bi bi kii bi di def euh, la délibération le juge mais man daf maa gën a yee si si nitu politique def maa gën a yee si àdduna def maa gën a yee tamit ma gën a fonk sama institution judiciaire comme ni ma ko waxee woon keroog rek ne leen tout verdict bu mun a ñëw nañu xalaat xam ne dañoo war a respecte juridiction sénégalaise le juge Grégoire Diop bu muy développé muy wax considérant considérant pendant une période de deux heures de temps nit ñi ñëpp toog di déglu jusqu'à la sentence bu mu koy prononcé là je me suis dit ndekete yoo dama doon nelaw parce que dafa am loo xamante ni comme tubaab nuy wax tout ce qui se conçoit bien semence clairement et les mots pour le dire arrivent aisément dégg-dégg dafa am nit ki mun nga wax naan par exemple man waxuma ne ne moom ils ont parfaitement jugé mais j'ai confiance parfaite que ni ma justice c'est-à-dire la justice sénégalaise mun naa leen gëm parce que dafa am loo xamante ne dafa dégg-dégg mënuma dugg ci détails yi parce que le temps ne me le permet pas mais c'est-à-dire dans sa position il a le droit de dire ce qu'il veut c'est-à-dire de pour génne pour pour situation bu ko arranger <coughs> excusez-moi donc peut-être il le fait pour se victimiser davantage peut-être il le fait parce qu'il y croit sa n'engage que lui man duma bëgg a dugg ci débat euh, croyance ak euh, guide religieuse parce que ki muy def référence c'est-à-dire ku muy joxe exemple kooku par euh, bu ñu nekkee Sénégal fii tey di wax euh, di am quiétude wala di nem dañ koy joxee référence koo xamante ni kooku exception la donc dafa am ci yoon bu mu duggoon ci yoon boo xamante ne yoon boobu moom moo ko indi ci ci dunia moom la doon topp gëmul leneen lu dul yoonu yàlla te yoonu yàlla la sàkk noonu la wax noonu la éduqué nit ñi pour ñu jëm foofu donc moom lu ko lu ko jëlee peut-être personnellement je me suis dit que ça n'engage que lui mais man li ma mën a gëm mooy ci tey mën naa gëm en pleine conviction que ma justice a vraiment fait son boulot parce que j'ai été témoin maa ngi doon déglu maa ngi doon xam analyse personnelle bi ma def mooy c'est pas parce que dama contre Karim wala leneen mais damaa gëm sama décision justice lu mu wax noonu moom loolu moo am loolu laa gëm. am na solo léegi nag. Mhm. léegi lu ci am nag. Mhm. leneen la bëgguma ci dugg ay détails. am na solo parce que. waaw je dirais que c' est de la politique politicienne ku nekk da ngay ràcc demale sa banam. aha Marcel Diagne di ko jaajëf bu baax a baax actuellement à Dakar euh, ñu ngi lay nuyu Marcel mon ami. alors euh, Soupa Ngaka balaa après ñu jël 832 buy terminé 17 bi soog ci teg 832 buy terminé 63. jël ngañ jël Seydou Bokoum après dem euh, Maroc fekk fa Malick Ba alors euh, Suppa Ngaaka maa ngi lay nuyu. mbaa yaa ci jàmm. jàmm rek na ngeen def. ñu ngi sant wér alhamdulilah. alhamdulilah Ahmad. naam. ah waaw kii moom li wax doy na waar de. lu mu wax mi ne. ma ne mu wax moom moom doy na waar de waaye de wax dëgg yàlla ci ci dëggam la nekk de xanaa. ah man de moom laa jàpp ah, xam nga yow loo jàpp. man de moom laa jàpp xaw ma yow loola jàpp yow. waaw non c'est xam nga xam nga affaire bi suñu euh, mu commencé la ñuy commencé parce que xam nga affaire bi mun naa ne hmm, dañoo dugal suñu loxo ci poche bon bi loolu moo waral li yëpp dañoo dugal suñu loxo ci poche bu bon bi waaye ci xaalis bi nekk ba léegi kenn laalu ko léegi nag benn affaire moo am. moom gis na ne fu mu toll nii wax dëgg yàlla amatul dara li nga xam ne mun na koo wax mu jëkk jékki comme affaire bi demee na nii mu jékki-jékki commencé indi ay affaire Sëriñ Tuuba ak ay affaire Xalifa Malik ak yonent bi ñun ñëpp ku nekk am na lu mu gëm Sénégal ñun ñëpp ku nekk am na lu mu gëm yooyu muy wax noonu moom la concerné ak képp ki nga xam ne si ànd na ak moom. te woor ma wóor lu suur lay la li muy wax noonu bu fekkoon ne jamonoy Sëriñ Tuubaa la Sëriñ Tuubaa dina ne ko bu fekkee ne nga luubal alal du génne ko bu ne luubalu ko nag bu boobaa li muy wax noonu bu boobaa mun na ko protéger mooy yow doo ñëw jox ñu poche bu ban bi ñu dugal suñu loxo ci poche bu bon bi fekk ñu fa dara ba bëgg a nekk fii bëgg ñëw tawari bëgg ñëw sunu suñu maan bëgg ñëw dox suñu non dañuy waxante dëgg ko waaw ñëw fii bëgg a dox suñu maay ñëw fii bëgg a dox si xam nga naan ay ay ay kii mais yooyu yooyu taxawul li taxawul moom moo gën a xam li mu def moo ko gën a xam ñun kay ñoo amul vraiment ñun ñoo amul capacité pour li nga xam ne moom mooy suñu xaalis ak fan lañ ko dugal mais c'est sûr que moom xaalis bi am na lu ca dem alalu réew mi am na lu ci dem c'est sur que am na lu ci dem mais léegi nag am na dan maa duut nga ñëw ñu crocheté la ñu dégg waaye Elwaaye Ndiaye ñëw ñu ne ko puut mu dem door ko ci koona ba gis nga fi ñu def xaalis ba mu nga ci koona ba affaire bi nii gis nga li ñuy wax ni yëpp ah gis nga amaat wóor na suuf laa la ne gis bu fekkee ne yàlla moo waaw li ñu naan ay nattu la ak ay yu kenn xamul kon dafa nekk nattu bi nga xam ne ba mu nekkee France nekk fa dafa liggéey duggul kaso sax parce que duggul boppam dara li nga xam ne su war na ko dugal kaso nan waxante dëgg ba mu jógee France ñëw Sénégal nattu bi kon boog natt dafa dafa am nattu bi nga xam ne dafa euh, kon yàlla dafa bindoon ne moom war naa ñëw Sénégal du waa Sénégal teg kaas bi sa côté ba pare dem kaso ba pare génn Sëñ Touba Sëñ Touba du ko ci far lii alalu doomu aadama yépp la ay taalibe Sëriñ Tuubaa ñu ngi nekk Sénégal xiif bay bëgg dee ay taalibe ñëpp seen taalibe ñu fay xiif bay bëgg a dee bu ñu demee hôpital sax duñu mën a faj nga ñëw taxaw fii bëgg ñëw sëlëm ak poudre bu weex taxaw naan ay xaw ma ay Sëriñ Tuubaa ak ay maam El Hadj Malick ak ay Mouhamad Sula Sallam waaye ñu bu ñu rey Amar. jërëjëf Sopa Gaaga. jaajëfe ko baax su fekk daa ñun daa koy non Amath Amath non neexu ba neexu mais gis nga ñun daa koy rek ñoo sonn Amath suñu compagnie bii ñun daa koy ñoo sonn ñun ñooy dund di liggéey di ñaxte bay bëgg a dee nekk si naaj bi ñoom yor seen digg bu ndaw ak seen feuille ak seen ordinateur ah non nan waxante dëgg quoi liggéey bu métti bi yëpp laa la wax ni ah population Sénégal ñoo koy del ñoom ñu nekk suñu bureau climatisé du daw fu nekk mais di guddaan daal suñu xaalis bu nekk nga yaakaar ne moom actuellement mu toll nii nga yaakaar bu nekkoon Europe. Ah. nga ba mu nekkee Europe. mètre de ko dawal ñëw am benn benn benn affaire bu ndaw bu am mooy papa nekk na président tax na mu ñëw di dem ay vecteurs lu nekk mu fay dem di def lu ko neex ci xaalis Sénégal alalu Sénégal suñu alal ñun suñu alalu doom yi nga xam ne fii liñ fa lekk lépp suñuy gis nga. xam nga chaque jour ñu ngi naan Abdoulaye Wade defar na defar na defar na defar na léegi ñu ne defar na c'est parce que bët bët la ku gis xool di nga gis waaye lan lañu coûté bu ñu kenn rey. jaajëf Sukura jërëjëf. waaw jaajëf Sukura ñu ngi lay ñu bu baax a baax a baax a baax <laughs> alors. Euh, huit huit cent huit cent trente deux bu terminé 17 salaamaaleykum. 832 bu terminé 17 salaamalekum allo 832 bu terminé 17 salaamaaleykum daal lu may dégg kon naa jël 832 bu terminé 63 salaamaaleykum mbokk mi wote 832 ndax yéen a ngi may dégg. am na ñoom ñëpp dina bëggoon ma yeggali. da nga xam ne baax na yeggali. bàyyi ma jël leen rek 832 ndax yéen a may dégg. malheureusement ñoom ñaar ñëpp dégguñu ma kon euh, euh, <laughs> sànq dama tëboon euh, benn moom laay jël benn jeeju après soo nga ñëw ci Ngañ Seydou Bokoum Malick Ba alors benn bismillah asalaamaaleykum Omar na ngeen def waay. ça va mbaa yaa ci jàmm. sant mu nekk moytu. bismillah. waaw maa ngi ziare mbokk yëpp nekk ci panel bi ak mbokk auditeurs yi. nangu ziar dara koy delloo. amiin amiin. Euh, man je crois que il faut il faut vraiment parfois euh, ñu jéem a euh, mener un débat constructif et, et réfléchi avec objectivité et non pas parfois. passion bon, passion waaw jéem a éviter loolu parce que dinañu indil loo xam ne soxlawuñu ko surtout pas en ce moment là au Sénégal. Euh, je crois que comme ni ko fi benn intervenant waxee donc le, le droit à la religion ka ku nekk xam na ko. Euh, réew noonu lay doxee il faut il faut un tout pour qu'on constituer un état donc euh, li mu fi waxoon démb rek laa fi répété waat donc y a y a y a y euh, un litige y a des gagnants y a des perdants bon y a des gens qui sont qui sont satisfaits il a qui ne le sont pas il a qui qui crient à l'injustice et il y en a d'autres qui crient à à à la justice donc euh, voilà nañ ko teg ci contexte boo xam ne ku ci nekk na nga ñëw défendre ses intérêts euh, mais li may déplorer rek mooy nit ñi bëgg chaque fois di insister que c'est c'est c'est c'est c'est un c'est un c'est un truc euh, politique quoi c'est un jugement politique ak yooyu parce que il faut savoir aussi que le cas Karim Wade ne peut pas être dissocié de la politique Karim Wade c'est un homme politique l'État c'est politique ah li tax ñi créer ko toumal ko ak yooyu yëpp euh, c' est des aspects strictement politiques ak yooyu yëpp donc yaakaar naa ni bon wax ni euh, euh, c' est politique c' est c' est c' est faire diversion quoi donc je crois que il faut laisser les choses dans le cadre qu'elles qu'elles sont quoi mais lu ñuy def rek mooy ku ci nekk indi sa argument. teg ko ci euh, de la manière la plus objectif et la plus posée quoi man euh, déclaration boobu rek gisuma ci dara euh, man personnellement j'y vois pas d'inconvénient j'y vois pas de problème d'autant plus que ñun ñi même ñi nga xam ne gëmuñu sax da ngay xëy lu ne tër dangay ngay rek ne woy sama ndey wala bu nekkee tubaab mu ne woy oh my god te pourtant de la naan la I don't believe in God comprendre nga ñëw kii ne la français bi ne la oh mon yàlla xam na ni gëmul yàlla euh, donc à un moment donné dina am foo xam ne boo ko toll da ngay gëstu gauche droite xam nga nekk entre quatre murs xamoo koo yaakaar nga jékki xam ne yàlla nga yaakaar wala diw wala diw nga ne ko manqué bàyyi ci loxo kooku kooku laa ci yaakaar mun na ma gën a ju ju pas de problème mais nag euh, aussi ñi nga xam ne ñooy intervenir ci loolu nga xam ne ñoom am nañ si beneen beneen euh, point de vue ñoom tamit ils ont le droit de dire que euh, euh, lii kii di wax nii diversion lay def wala nii ak nii mais toujours est-il rek ku nekk am nga sa droit ah à à que ma foi <laughs> je le réserve à temps ou à temps te moom laa ko jagleel lii ma daj nii yaakaar naa ci kii dina ma ci génnee léegi erreur bu ñuy def rek mooy ñi nga xam ne ñooñu tamit ñoom ñoo bokk ak ñoom benn benn benn benn tarixa ñi bañ a rek euh, il faut entendement la laaj quoi. entendement ça ne veut pas dire que yéen ñii ñëpp gain jóg leen def leen kii pour ñëw jàppale wala affaire yooyu moom ku daka jagaleel le guide religieux bi nga xam ne bokk na kook ñenn ñi donc il faut qu'on se dépassionne xam ne Karim comme ni mu ko waxee Karim wala keneen ku nekk ci langue politique politique bi politique c'est un jeu c'est da ngay jouer il a joué aujourd'hui il a perdu bon demain on verra euh, qu'est-ce que le futur sera pour Karim ou bien sera pour le Sénégal mais en tout cas là il faut préserver les valeurs et, qui nous lient et les valeurs euh, qui euh, qui donnent le Sénégal cette crédibilité de démocratie et de et de justice libre waaw même bu ñu ko waxee c'est pas libre ou autre euh, par rapport à cette à, à ce mais tout le monde sait que le Sénégal fait partie des pays Euh, d'Afrique yi nga xam ne ñi ngi euh, vraiment euh, rafetlu taxawaayu justice bi donc man loolu laa amoo lu ñu wax nañ leen préserver l'état de droit nañ leen préserver la sérénité la tranquillité mu dem ba gars yi ils étaient plus truqués mais tey gis naa ni xel yaa ngi gën a dal ak yooyu dellu si et puis ah, ah, xam ni prison bon politique la jaar na fa Nelson Mandela ak keneen ak keneen ak keneen bon kenn xamul ëllëg ah, politique moom lu ne mun na la si fekk donc Karim Wade sénégalais la comme tout un chacun donc euh, il a joué il a perdu comme d'autres ont joué ont perdu papam et pareil ak yooyu dañ ko teg rek ci contexte euh, politique bañu dugg di def ay jugement de valeur profonde quoi ku nekk nañ ko bàyyi ak li mu gëm ak li mu yaakaar mais aussi que les gens qui se croient intellectuels ou les gens qui ne se croient pas intellectuels, qui s'expriment dans le cadre où ils se trouvent, où ils se sentent euh, à l'aise et mieux à l'aise. Euh, merci Amath loolu laa amoon lu mu ci yokk et di woowaat nit rek ñu ànd daal incha allah. benn jeeju Virginia team Sénégal invité nañ leen Houston ah mois de juillet ngeen ñëw. ñu waaw yow xam nga dañ ci naroon waxaat. mais après dëggaatu ma dañ leen dañ leen di wan ñoo leen dàq football. wala da ngay ragal ñu ñëw foqati coupe bi foog ngeen ñëw Houston foog ñu wan leen lu ngeen mënee merci Ben. incha allah ci kàttan yi di ko di bu baax a baax a baax. Euh, ma essayé waat 832 ndax ñu ngi may dégg 832 dommage dégguñu ma alors euh, Seydou Bokoum Ngañ Seydou Bokoum Ngañ kan la jiitu woon Seydou Bokoum Ngañ loo Ngañ depuis Espagne Ngañ bismillah. waaw sëñ mbaa jàmm rek nga am. waaye am bu bëri waa di la gérer. ñu nangu ziar di koy delloo. di sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi lay déglu. xam nga Amath euh, Karim Wade ki mu gëm muy Serigne Touba xamul tooñ xamul jël yëfu jàmbur. xam nga Karim bu fekkoon dañ ko jàpp loxo si poos li ko état bi jiiñ na moo ko sàcc bu fekkoon dëgg la indil nit ñi preuve bu leer naa ñi teg ko si taabul ba mu leer si bopp sénégalais yi buñ ko jàppee tëj ko si kaso bi bu toogee ne mi ngi jël référence sëñ Touba nit ñu duñ ko faale waaye Amath Karim dañ ko tooñ Amath ah, Karim Wade commencement bi fii lañ taxaw ni sàcc na 4000 milliards gis nañ 99 milliards mënoo ko. gis nañ 47 milliards Singapour fu ñu ne gis nañ fa ay compte jël ay société jàmbur dem ba Guinée équatoriale seen aéroport na Karim Wade moo ko moom jàpp sa kaso bi tëj ko deux ans ba tey ni bu ñu génnee dara teg ko ci loxo Sénégalais ba Sénégal yépp xam ne lii affaire caaxaan la ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi amaat loolu tooñ la kooku bu ko neexee moo toog tey jël référence ci seen Touba ndax dañ ko tooñ amaat te Karim Wade bu ko neexee jël référence Sëñ Touba barki dem fii ba mu fi def grève de faim mais xalifa bi tey ku fi toogal Sëñ Touba nekk Sëñ Touba dafa yónni ñaari doomam ne leen boo leen demee si Karim Wade ngeen na ko bu bàyyi grève de faim bi jox leen ay lekk ñu yóbbul ko Karim Wade lan la wax Karim Wade sama taaluba la sama doom la papaam man la ko dénk mais nit ñi bu bu bëggee am ñu bëgg a taxaw tey nag Karim Wade du murit du taalube kooku jabaate la sax. ak ñàkk respect ko parce que ñu ku ñu gëm tey muy xalifa bi tey moom moo toog nag Karim Wade suma taalibe la suma doom la mais Amath ñiy wax ñëpp xam nañ fi ñu féete am na benn paa bu gën a léeg bu wax wax li ma bëggoon wax yëpp wax na ko ñu bëri ñu ngi contre Karim Wade murid gi bàyyam doonam dong moo tax ñu contre ko loolu moo tax ñu contre ko du leneen mais Abdoulaye Wade fii lañ doon nekk naan lan la tukki Touba ñu ne Abdoulaye Wade tukki. Touba ñi bañ murit man de loolu ngañ wax naa ko te bañu ma Touba mais nag loolu moo doon sama xalaat effectivement dafa doon tukki ak dem Touba loolu moo doon ba mu ci jamonoom loolu la doon ah, def dama ne la ci jamonoom ah. loolu la doon def ma ñaaw li tukkeem yu bari yooyu ma ñaaw li salaam maaleykum maaleykum salaam muy jéem a jaxase Sénégal ak Touba ma ko doon ñaaw lu wokk sama kaw ba tey te ba tey dama koo gëm taxul ma bañ Touba nag mais loolu sa xalaat la yow am nga ci droit. acca continuer xam nga woon président daawul woon dem Touba. daaw ko demee ni mu ko doon demee ba mu nekkee président xanaa ñu dëkkuñu Sénégal. ah, ah yow ëpp xam nga ma dama ni. Abdoulaye nga loolu oh. loolu ngay jéem du jàll loolu ñeneen à part yow jéem nañu ko mënuñoo jaxaseek murit ñeek ñeneen ñi ndax yooyu kàddu mënut a ne ndax xàmme nañu ràññe nañu xàmme nañu ràññee nañu Abdoulaye Wade yow laa wax yow yow yow yow laa wax waxuma Abdoulaye Wade yow laa wax yow wax jooju ngay wax ñun ñun ñun xàmme nañu ñun man nag samay morom mu murit man amaa tijaan ak samay moroom murit xàmme nañu bu baax ñi ñuy jéem a jaxase tarixa yi loolu ngay wax mooy jéem a jaxase ndax dañoo bañ Touba ak Ablaye Wade moo tax kenn bañu fi Touba. kenn kenn jaxasewu fi amoon. ah wax jooju ngay wax na waxu jaxase la parce que bu doo dégg ci Sénégal kuy bañ Touba amu fa. taxaw mais moom murid la sëñ Touba la gëm di jël référence ci sëñ ñu ne non waru ko jël mais loolu du yoon. waaw d'accord bu dee yow décroné la bu dul rek mais bul dugg ci foo xam ne aussi dafay daal di xat. jaxasewuñ Amath Ablaye Wade murid la bu ko neexee dem Touba mille fois. waaw loolu moom am na ci droit. am na si droit amat murid la ba mu ba mu nekkul woon président murid la da daan dem Tuubaa ñëpp xam na murid la ragal pété day euh, ragal pété day day day xañee xaw ma nuñ koy wax si olof. day xañee wërsëg te muy dëgg. te muy dëgg. ko. te muy dëgg. Abdoulaye Wade péeteem nëbbu ko te man li ma wax dafa nekk amaat amaat quatre-vingt-dix pour cent ñu bañ a Abdoulaye Wade murid gi bu nekkoon doo nga tax ñu bañ ko. du la loolu loolu amul loolu nga wax amul loolu laa la amul nag loolu laa la wax ne nga amoo amul voilà ab Abdoulaye Wade fan lañ ko gën a commencé contre jumaa Masaalikul Jinaan bu nekk Dakar ba mu jëlee suuf si jox ko murid yi boobu lañ njëkk a commencé di contre ab Abdoulaye Wade lu ñu gis mu baax Touba rek ñu ne Abdoulaye Wade tubb na xaalu senegal bi yóbbu ko Touba te xamuñu ne Touba lu fa baax murid yi ñoo ko fa def Abdoulaye Wade deful dara Touba Macky Sall deful dara Touba Touba loo fa gis mu baax fa murid yi ñoo dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm muy addee ñu def ko fa voilà Amath am na solo ngañ ñu ñu jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Seydou Bokoum nuyu nañ la. Amadou. mbaa jàmm rek nga am. ah alhamdulilah sant yàlla. bismillah. Eh, kontaan ci Sénégal rek. waa Sénégal de nag ñi li li moo tax yeneen dëkk Afrique yi bon wax ni ñu ñu mais yàlla am na lu ñu parce que dañuy waxtaan nag suñu biir waxante dënn waxante dëgg même bu suñuy dënn jógee bu subaa ñu xam ne ñoo bokk Sénégal bi ñoo bokk ndey ak baay toogaat nag ah, tiim même bool bi lekk jugte dem loolu yàlla def la nañu ko te yàlla na yàlla continuer kontaan ci justice sénégalaise pour une première fois en Afrique ah ouais ah ouais vraiment euh, euh, euh, te kuy félicité da nga war a félicité CREI yi félicité juge bi vraiment Grégoire parce que justice a été rendue ku waxulee dëgg rek amul système boo xam ne bu bu bu bu bu bu infaillible au monde mais justice a été rendue waa ji tegal nañ ko dossier deux ans gars yi lu ñu commencé bi ñu commencé rek problème bi rek ñu commencé affaire politique c' un c' est c' de Macky Sall en 2017 loolu la ñu njëkk indil tegal ñu fekk Macky Sall gagné Ablaye Wade ba pare nan la mën nekk euh, euh, euh, Karim Wade challenge ñu dem ba ci biir ñu indil ñu beneen nañu la CREI n'est pas compétente pour juger Karim Wade jàppal bàyyi la CREI n'est pas compétente la CREI n'est pas compétente ñu dem ba foofu ñu bëgg ñuy dugal ñu ci xaalisu Singapour ñu dem ba foofu Karim Wade bàyyi dañ ñëwatul mais justice a léegi dama lay laaj. waaw ndax yow da fee dégg ba ñu commencé waxtaan ba tey. non man damay damay damay damay eggali non damay sama développement. waaw dama lay laaj. non waaw waaw waaw ok. ndax da bañ commencé bañ commencé émission ba tey yaa presque ah. léegi léegi mu mat deux heures temps. Ah. ku fi taxaw rek wax dara ci justice bi ne justice n'a pas été rendue wala la justice a été ah, infaillible wala la justice a été patati patata ndax da ko dégg. ma jëm nag léegi ma jëm xam ba xamatoo foo jëm. nga ni. boo xamante boo demee ba xamatoo foo jëm. xam nga ñu ngi lay bàyyi naa ko Sall wala bàyyi naa ko Serigne Diw Karim Karim Karim Karim Karim Wade dafa la toll parce que batterie yëpp éprouvé dóor nañ ko ku ju dem na fi ba di ku jugé doomam mu mu wàcc ci ci tali bi du seraan kenn jugé doomam dem na fi ba tam suñu président dëmm façon bu def nañ ko bi ñu demee ma xam ne mënatuñu dara. ñu nag léegi nañ ko bàyyi eh, eh, bàyyi na ko sëñ Tuba loolu kay mooy li mucc waaye waloon nañ ko commencé nag <laughs> ah waaye mënoon nañ ko commencé waay xam nga dem ba mënatoo xamatoo sa batterie yëpp jeex moo leen tax kenn bañul mu ne bàyyi na ko sëñ Tuba loolu am na ci trois waaye nag waroon na ko commencé rek tey jii dafa wane benn affaire bu am solo mooy ne que vraiment Sénégal dafa avancé te gis nga gars yi dama bëgg gars yi ñu déglu ji euh, euh, euh, président tribunal bi mais waa ji li dafa leer gaay yi te man suñu mbokk catholique boobu waa ju jub la ah. waa xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga vraiment man je ne comprends pas pourquoi. tu as besoin de nous suñu mbokk catholique boobu waaju jub la. c' est un juge de la république. pourquoi yow nga nga nga nga war koo nga war koo joxoñ comme un religieux pourquoi. déglu ma parce que man sénégalais la comme yow. après. mais suñu mbokk catholique yi dañ dañ nekk ay nit yoo xam ne dañu. dañ non non non non non gis nga dugguñu ci débat boobu. c' à dire que un juge de la république a rendu un verdict on se tient à ce juge. ah d'accord man waa léegi ah quand même soyez nag quand vraiment pourquoi on a besoin un juge ñu naan ñu catholique wala animiste wala autre ah, ça n'a pas sa raison d'être d'accord waa ju jub la jub la te man am naa fa xam ne sax man xaw ma ko ci woon waa ji moom wax na ne avant muy ñëw amoon na huit milliards <laughs> Oh, oh, man man pour man am amaat pen bi waroon nañ ko yóbbu pen bi il faut ñu xoolaat ko penu euh, pen bi léegi il faut ñu yóbbu ko jëm ko yóbbu quinze ans léegi sans sans sans sans kii parce que problème mooy ne que loolu mooy mën tax gars yi li ñuy jël parce que ku ne am man waa ji bu waxee loolu damaa am na huit milliards balaa muy Sénégal mais bi li ñuy wax daal li ko daal mooy lenn dem na ba càppandool ba lu ne jëm nañ ko papaam jëm na lépp ba dem ba mënatuñu ñu ne nañ bay nañ ko ko Tuubaa waaw loolu de am na ci droit moom kenn du ko werante jërëjëf Seydou ah jaajëfe nañ la Seydou baax a baax a baax ah, euh, dernière fois 832 ndax mi ngi ñuy dégg 832 allo 832 waaw alo waaw allo. non non non kooku Alioune Badara Diouf la Ndour. Alioune Badara Ndour Alioune Ndour non yow. waaw waaw waaw boo santoon Diouf boo jël <laughs> kon dañuy daal di jël Malick Ba depuis Maroc après ñëw jël soxna Anna Meng après Alioune Badara Ndour euh, Malick bisimilah salaamualeykum. salaamaaleykum sëñ Amath. mbaa jàmm rek nga ñoo ngi sant baax a baax. acca bisimilah ñu déglu la. maa ngi nuyu gars yëpp bi. ñu lay fay. Bon, mon Limandja, quoi, c'est par, comment, rapport au verdict de Karim Wardou, quoi. Uh -huh. Moi, je dis aussi, je suis satisfait du verdict. Ndeysaan. mais pour, pour parce que parce que une grande première quoi au Sénégal que parce que à chaque fois bu ñu doon jàpp un politicien da ngay dégg mandat de dépôt après liberté provisoire bon dama ne peut être dana tax c' est une leçon pour les autres. te te yi CREI maa ngi xaar e CREI xaar ñu rek mu mu le cas de Karim rek mu yem fi dañuy ñaan yàlla mu continuer. Uh-huh. parce que pour man xëy na Macky Sall xëy na Macky Sall tey moo ko activé. Uh-huh. aussi il peut être victime parce que ëllëg ëllëg moom mën na fi jógee régime ki ñëw topp gars yi nga xam ne on a soupçonné que yaa fekk chose ci topp la warul nekk rek mu yem si kër bi pour tout le monde. parce que tey ñun ñii bu ñu dee bay génn suñu réew di dem di génn di wëri c' à cause de ces gens là depuis l' indépendance ba léegi les gens là ils bouffent notre argent comme ça loolu pour man c' mooy ay chaque fois lan moo tax chaque fois bu ñuy juger un quelqu'un un politique ñu ne c'est mais mais mais si fekkee loolu la ko ñoom la ñoom def politique fekkee kuy def politique bu sàccee kenn du ko topp donc mais ëllëg bu fi Macky Sall jógee ñu topp Aly Ngouille Ndiaye encore c'est mais mais c'est politique ça signifie pas que dana a waxaat dana nest pas pour man daal côté boobu dama ne vraiment ça doit continuer te xam naa que même bu ko Macky suul gars yi parce que moom bon léegi li may wax e mooy par rapport mooy déclaration Karim Wade man pour man bon c'est un faiseur de malin quoi pour man parce que parce que tey dafa dem ba jaaxle il veut se victimiser ak ak benn récupération par rapport au Mauritanie te waroon loolu c'est c'est Wade a fait ça parce que c'est pas la première fois mais nous mais nous république ngëm-ngëm bi bon sëriñ bi boo koy roy mais nekkul rek dans les difficultés moom bu mu nekkee ministre mais moom bu doon doon roy sëriñ bi bu mu dans la difficulté te yoon bu yow seen dafa yoon njub bu mu nekkoon pour man woon yoon bu njub parce que tey d'après le juge yi wax il a volé donc n'était pas sur la bonne voie donc pour man tey référent affaire bi man pour man gëmu ko day wax rek gëmu ko yeneen li aussi Mandela Mandela il était la bonne voie si dëgg la doon xeex ba mu am la mais Karim ni mu doon doxle ñëpp xam na ne moom ek woon la bon voie donc pour man li muy wax ni c'est une récupération parce que tey amatuñ benn pexe dañ ñëwoon procès am kenn du ko tey tëj na léegi nag di jéem a laqat côté muur xam parce xam na ne côté boobu bu waxee loolu rek léegi gars yi commencé sat bon am gars xam ne c'est donc Sénégal nous sommes dans un état Karim Wade bon Sénégal la tëj na fi ñu ëpp maqaam foofu ñoom Mamadou Dia ñoo ëpp maqaam ki nekk tey tëj nañ ko fi ñu ñoo ëpp maqaam foofu ils ont tout fait pour le Sénégal te atte nañ ko tëj ko donc na accepté verdict bi maintenant nag léegi affaire warul yem rek si moom dafa war a continuer et naan fi maa ngi kii ak sëriñ pour man loolu gëmu ko gom Ablaye mooy def loolu pour mu jéem a féet côté bëri Ablaye dafa la féetu on l'a renversé Sénégal boo bëggee boo bëggee jiitu boo bëggee da ngay doxal dëgg parce que même même même bu sëriñ Sénégal yëpp àndoon na Ablaye wala an ak Macky Sall te doxaloo dëgg da ngay daanu Ablaye Wade en 2012 sëriñ yi moom lay àndoon même daa même à Touba Touba y avait un ndigal indirect premier tour moo ko deuxième a moo ko gagné mais daanu. est ce que yaa ngi digal kan moo mais mais mais y' a y' a un ndigal index. la ba nañu dégloonte rek nañu dégloonte rek nañu dégloonte rek nañu dégloonte rek. n'est-ce pas ñëpp xam nañ loolu fa la bokkoon mais il a été battu donc dama ne Sénégal ku fa jiitu Sénégal dafa yaatu. donc boo fa nekkee même même même bu la xalif généraux Sénégal yëpp jàpp te doxaloo dëgg ci va tomber quel que soit seen maqaam donc li may wax mooy ñoom ils n'ont pas bi ñu leen joxee. Sénégal doxaluñ sëñ Malick Malick Ba Malick nañu nañ nañu wax tamit aussi les choses quoi telles so sont c'est-à-dire que un ndigal indirect mooy lan yow kan xam kenn kenn déggul euh, ndigal foofu à Touba pendant ces élections là donc faut pas aussi ñuy créer yoo xam ne nii bon euh, ndigal indirect amu fa parce que la le le xalif il a la latitude de donner aucun ndigal qu'il veut donc bu ndigal amulee rek bu ñu fi nekk naa ndigal indirect quoi pour non non euh, cest à pour ñu waxtaan waxtaan boo xam ne vraiment aussi dafay seree quoi parce que yaa Sénégalais nga Sénégal la ñu kenn déggu fa ndigal par rapport à aucun candidat kon respectons les choses telles qu'elles sont quoi mais mais mais par rapport aux résultats ni résultats yi demee on sait qu'il un soutien massif. non waxuñu waxu soutien massif les populations ont la la le droit de soutenir qui il veut mais par rapport au ndigal le ndigal vient d'une seule personne mooy l'autorité morale religieuse donc si ce point là soyons clairs pour ne pas offenser ñi nga xam ne aussi euh, peut-être xam nga ndigal bu jigéewul fenn nga leen ndigal jigal le foofu c'est une manière de les offenser là aussi xam nga dafay doy waar daal mon frère donc il a joué la population pour fexe am fa tey jii en ce day fexe encore xëcc gars yi vers son pour mener combat pour libérer son mais ceci ne veut pas ceci ne pas dire a eu un ndigal indirect euh, xam nga li Ablaye Wade di def les machinations de Ablaye Wade tu ne peux pas l'amputer à d'autres les machinations de Ablaye Wade ne ne ne regarde qu'Ablaye Wade. laa ma ne en ni pour wax ne que euh, Karim daf féet foofu du bokk dañ koy jàpp parce que fële la bokk lay demee loolu c'est une parce que même si biir élection il a tout fait ba il a eu beaucoup de soutien là-bas. mais malgré tout ça il a perdu loolu la ma réew ko. mais c' est de bonne guerre c' un politicien mais un policier il veut un soutien c' de bonne guerre. moom laa la wax ma ne ma ne ñoom ñuy wax bu ñu kees jafe-jafe parce que même bu même Macky Sall bu bëggee voir il peut la même chose et pour dama ne ñoom man li ñuy wax guñu ko. li ñu def pour une récupération xaw ma tey. parce que sûrement il est en situation day jéem am benn récupération wala benn soutien ci côté boobu loolu kese moo tax mais du lu mu gëm parce que bu ko gëmoon. Mhm. mu doon doxalee au au Sénégal di loolu bu côté boobu laa a wax quoi pour pour seulement am un soutien am récupération de ci côté boobu loolu kese la. merci xam la féetee dañuy daw loolu noonu lay demee quoi tu vois. merci doon wax quoi. merci Malick merci Malick euh, soxna Ana na nga def. maa ngi ciy Amath maa nuyu. maa ngi lay fay mbaa jàmm rek nga am. maa ngi ci jàmm di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp. fay nañu la. waaw euh, Amath xam nga Sénégal en dafa neex te euh, instant bii nii ñu ngi wax Macky Sall di wax justice di wax lépp xam nga Karim Wade kenn tooñu ko kudul papaam. donc euh, solution bi dafa yomb ba nga xam ne dañu bàyyi ki nga xam ne moo ko tooñ dem ci ñi nga xam ne defuñu dara parce que li tax ma wax loolu mooy euh, Abdoulaye Wade par exemple Karim moom njëkkul nekk doomu président au Sénégal di jëlee indépendance ba tey du Karim du président yi fi jaar yëpp ñoom ay doom yu jigéen rek la ñu amoon wala amuñoo doom donc du Abdoulaye Wade moo fi njëkk am doom boo xam ne tollu woon na ci âge boo xam ne mënoon nañ ko dénk ay affaire am na yeneen président yu fi jaar Senghor amoon na doom bu mu ko mënoon defal Abdou Diouf amoon na doom bu mu ko mënoon defal Abdoulaye Wade am doom mais intelligence bi fi mu féetee mooy ñeene bi ñu génne seen famille ci affaire réew mi parce que boo dugalee sa famille ci affaire réew mi léegi bu ñuy bu ñuy saytu nit yi yor affaire réew mi il faut mu dugg ci donc instant bii nii Abdoulaye Wade moo tooñ Karim parce que bu ko bàyyi woon mu toog dugalu ko ci gouvernement bi ba muy jël lu mu warul jël wala ñu naan jël na lu mu warul jël instant bi mi ngi bénéficié wu ci suñu milliard comme ñëpp doon yi niñ ko defee te dara du ko ci fekk parce que kenn du ko wax dara sa papa si nekkoon président moo doon jël di la jox man kenn dénku ma laalu ma dara kon bu ma kenn wax mhm. mais yaa jël sa doom jox ko ay poste yoo xam ni ne su réew mi yëpp buy dugg ci loxoom lay jaar buy génn ci loxoom lay jaar nga mhm. pasar pasaree ko ba léegi est-ce que xool nañu xaalis boobu manqué noonu ñaata nit la rey au Sénégal par exemple ñaata nit ñoo ci waroon faju faju ñu ci ñaata nit ñoo ci xëy na sax étudiants yi dee nii di doon ni bourse ñooñu xaalis boobu bu buñ leen ko joxoon bu ñu dee tey donc dañuy bàyyi ñun dafa mel ni dañu am dañu am amnésique wala Sénégal comme moom dafa xam boppam sénégal Sénégalais dañu xam suñu bopp ba nga xam ne même suñu ay cax ak lu ñuy génn sax dañ ciy génne ñun ñun ni ñu mel par exemple njëriñ loo fekkee euh, ku tooñ xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam donc ñun kenn xamul euh, en fait lii nii ndax comédie la wala lu mu doon parce que mënoo ñëw ci benn réew nga ñëw ak dara léegi sa papa nekk na président on parle de milliards fu mu nekk nii léegi ñu bëgg a toog naan ñu non verdict bi génn na sax mais waxuñu sax mënuñu prouver ni moo jël mais yow Amath Diouf tey boo toogoon banque bi woo la ni la dañu soxla par exemple li ñu bëgg a xam wala tey gouvernement bi woo la xaalis bu nga am nii yëpp fan la génnee ñoom dañu lay laaj ba pare toog di la xool yow yaay dem nga ñëw ni leen xam gi lu ma leen di yëgal lii laa fi am lii nii fii la jóge lii nii samay investment la jóge banque bi ñoo ma ko fay année bi laa ko commencé ñu may fay mi ngi nii lii nii dama ko hérité ci sama ay maam lii nii lu nekk nga tegal leen ko ba nga xam ne buñ la audité ba pare dañ la naan thank you so much demal nga dem mais mënuloo toog di joué ci euh, foog na ñun dañu ñun ñun waa réew mi ñu toog naan ay non waxoon nañ ko lii six cent milliards loolu ñu wàcc ba deux milliards un dollar sax sàcc nga léegi bu ñu kenn rey ah moom de bàyyi naa ko sëriñ bi def naa ko sëriñ bi parce que bu ñu buggee dugal léegi sëriñ yi dañuy dugal kon diine bi parce que wax dëgg neex yàlla ñun Sénégal 97 pour cent musulman la ñu defee naa ki nga xam ne moom lañu ñu wax ni dafa jël musulman la moom mi jël moom bi nga xam ne ñun ñoo yaakaar ni suñu xaalis daf ko jël 97 pour cent musulman la kon kay nañ ko àtte ci charia rek dagg loxo bi benn yoon mu gën a gaaw xam nga booboo naroon ku nekk bëgguñu toog bëgguñu rey affaire bi du religion du tarixa nañu bàyyi sëriñ yi parce que sëriñ yooyu dañu fi nekkoon jaar fu ñu war a jaar liggéey bi ñu liggéey moo tax bu màggal jotee nit jóge ba màkk dem dem Touba ku nekk jóge ci continent yi dem fa loolu lu sëriñ Touba liggéey la boo demee Europe tey jii nii ñu ne par exemple am na ñoo xam ne reykatu nit yéen fa sàcc yéen fa ak yeneen ak yeneen tijaan yee ngi ci biir murit yi ngi ci biir ñaseen yi ngi ci biir ñëpp ci biir te ku nekk sa sëriñ ngay waatee est ñoom bi ñu waatee seen sëriñ génn nañ pourtant am na ñoo xam ni dañu ne dañu am seen à vie dootuñu génnati te ñooñu ci biir ñooñu nga xam ni tey à vie lañ leen tëj am na ñu naan barke bay Niass ñi naan barke sëñ Babacar ñi naan barke sëñ Touba mais wax ko est ce que tax na yow nga génn fa parce que ñoom ci boppam yàlla daf leen leen loo xam ne dañu liggéey ba pare yàlla leen fay il faut pas que nit yi jóg di def si lu ñuy def ba pare di bugga rey nit yi daal barke sëñ Touba barke sëñ Babacar barke leneen. foo dem ci àddina am na ñoo xam ne dañuy joué ci intelligence jàmbur barki démb documentaire bu ñu ne fii ci télé bi munoo dem nga rey ay nit yu dul jeex toog naan bible bi laa soxla woon Jésus parce que Jésus nee na xam nga loolu mooy mais ku nekk dañ lay bàyyeeg li nga li moom loolu na gëm instant bi jot na nag pour Jesus jàllale ko donc léegi amul problème parce que ñooñu ngay woon noonu ñëpp dafa am lu ñu liggéey moo tax ay millions topp leen donc lii du débat wu sëñ Touba mu nekk nii du débat wu entre Mouride ak Tidiane débat entre ñun dañ la jox suñu àll réew parce que tey su doon débat entre rek ndax Ablaye Wade Mouride la ndax day julli ndax day woor kon ñun dañuy dem ci jàkk yi di choisir suñuy président wala ñuy dem ci tarixa yi bañ nañ ko ba bu ñu leen di choisir dañ leen di choisir au suffrage universel Ablaye Wade bi ñu koy teg chrétien bi voté na jullit bi voté su fekkoon ci noonu dañuy tànn ci tarixa yi ñun duñ ñu laaj suñu avis dañu naan par exemple sëñ Touba de dem na léegi nag ki ci toog mooy taawam mooy toog bu taaw bi leer demee rakku taaw bi ñuy wàcc ba ci sët yi parce que xam nga sëñ bi fi nekk de ci sët yi la bokk nga dem ci ñu def même chose nga dem Ndiassane ñu def même chose parce que foofu hiérarchie la rek ku dem rek ñu toppante ko rek noonu la ñuy def donc foofu soxlaaw ñu man sama vote ndax sëriñ bi mën na toog soxlaaw ñu vote amaat Diouf soxlaaw ñu vote keneen ñooñu dafa am ñu koy defee ñun nag dañuy jël suñu ay président daal di tey la vote bi xool ñu ati bi ndax day voté wala ki gëm ak ki gëmul carte yee ngi nii tant que ngeen nekk Sénégalais rek te ko prouver da ngeen di voté ñu dénk leen suñu réew boo leen ñëwee da ngeen di xam ne jiitew leen ay mala buñ ñu rey ak Ablaye Wade ndax murit la dëggantaan ndax ndaxte moom ki ñi ko doon nekk di ko xas ñooñu du ñu ay murit suñu yoon nekku ci ñun Ablaye Wade dañ ko dénk réew mi pour mu liggéey ko pour mu liggéey ko d'une façon boo xam ne xale yi nekk ci désert bi di fa dee pour jàll ay Maroc pour bëtt dem Espagne ñii di bëtt bëgg a dem feneen ñooñu am espoir bu ñu toogee seen réew jigéen bi nekkoon ci àll bi bëgg a accoucher nekk ci charrette bi yu tëbaka dal ba bakkanam yem loolu bañ ci am ak yeneen ak yeneen paysans yi di di am yaakaar loolu moo taxoon ñuy fay suñu président yi xam nga bu ñu jógee di wax Abdoulaye Wade liggéey na dëkk bi dañuy soxor Karim Wade moo fi nekkoon di outil di indi mais loolu lañ ko falee non ñun dañuy fal Abdoulaye Wade dañ ko faloon pour mu liggéey ñu jël suñu xaalis ku nekk contribuable bi dajale di ko fay moom mu jël loolu yëpp boole ci lu mu indi di ko sàcc donc ñun dañ leen fal Ablaye Wade bu defaree ay tali daf ko war a defar parce que loolu moo taxoon ñu teg ko fa teg ñu ko war bi rek ñu ko yow dañu ñu neex dañu bëggoon ko toog rek di ñu lekkal alalu réew mi ak di galayaabe ak di def lu la neex ba heure yu sa dem jot nga dem moom moo xëccoo réew mi buñ koy xëccoo xam nañ bu baax lu ñuy def pour ñu fal leen parce que di leen dig réew mi lekk dig leen naan dig leen liggéey dig leen bañ a yàq ak jubal loolu la ñuy dig réew mi donc pourquoi bu ñu toogee mënuñu def loolu léegi ñu toog di ñu wax Karim ak lii la wax ci cellule am lu Karim wax ça n'engage que lui chef yéen fekk lu mu wax nii loolu tamit affaire am la parce que bu Sénégal jaaroon fu mu waroon jaar moom instant bi war koon fekk sax muy toog bay laaj ay ku ñu gracier mais nag lii mooy Sénégal actuellement lii naat se foutre de la République moom la ñuy def bu mu nekk nii wasalaam merci. na Anna euh, balaa ma jël Alioune Badara may euh, ñaan Mohamed depuis euh, depuis Washington ak Mohamed depuis Washington ak voilà Mohamed depuis Washington maa ngi gis numéro bi mais actuellement mënuma jël parce que ak monsieur Sané depuis Canada. Euh, fu mu toll nii j'ai atteint la limite des yi waroon na nekk ci kii bi léegi damay bàyyi Alioune Badara pare donc je raccroche avec ce groupe là euh, ma jël leen s'il s'il vous plaît Mohamed maa ngi lay gis saax ba tey mais je ne peux pas prendre actuellement ak monsieur Sané depuis le Canada mais je vais le faire tout de suite incha allah je m'excuse de de ça quand même euh, voilà maa ngi lay nuyu. Amath fay naa la na ngeen def fay. mbaa yéen a ci jàmm. ça va ça sant yàlla bu a baax. ayca ñu déglu la. waaw mbirum Karim moom Amath vraiment man de <laughs> maa ngi jégalu si reetaan bi quoi je parce que vraiment soo nekkee ci kaso bi def li nga def ba pare taxaw naan ñu jox référence u euh, Ablaye Wade euh, de notre intelligence quoi excuse-moi du terme mais vraiment respecté wu suñu intelligence te Karim à chaque fois daf a wane quoi euh, affaire yi parce que nit tam sooy suñ ko def yëpp dañu war a fàttali tam parcours am mooy doomu Ablaye Wade d'accord jërëjëf mais dañu xool fan la jógee bi bi ñuy falee Papa Dieng ndax d' abord d'un premier tour yi Dakar la ko fekkoon ba ñu fal papam 2000 fan la suba teel ñu naan la ay ay dons ay voiture ay euh, euh, naka tuutaay benn parti wu presque un la ay dons si koo xam euh, ne fal Karim ko falee ministre bi papam jàllee le 2007 xaw ma ko ban année lañ ko fal ministre je me souviens plus ah donc euh, su toogee tey ñu tëj ko di ko ñu ko xaalis mu toog di wax waxu Serigne Touba wala Mandela vraiment waxuma la dara mais pour man dama jàppee ne dafay saaga Sénégalais suñu intelligence lay saaga Karim Wade war na mën a xam ne nag ñun jàng nañ muus nañ su dee daara lañ jàng tam am nañ xel lañ jàng am nañ xel yéen ñu nekk États-Unis soo leen jàng américain tam <laughs> am ngeen xel quoi mu respecté ñu quoi moo tax ma xalaatoon ne Karim Wade vraiment ñun fi ne ñu waroon waxtaan suñu affaire réew soxna Anna def naa wax na ko quoi li ñu war a li ñu war teg kanam ci kan li ay ay jéego ci kanam la war ñu sax seet kan mooy falu après non kooku jotagul li ñu war a seet mooy <clears throat> plan bi ñu tegal lan moo koy avancé loolu du question far loo xam ne la paysan yi sa àll ba la ñu dundee euh, dëkk bi nu ñu mën a def été baa ngi ñëw coupure yi lan moo ko mën a arrêté nit ñi di ma dalal seen xel di xam ne di jàpp si dara duñu xalaat ci loolu ñi am xam-xam lu ñu si wax ñu si débattre mais di débattre ki nekk ci kaso bi naan ñu Serigne Touba fii la jaar wala Serigne Touba laa jot référence wala Mandela. vraiment je pense que ne Karim Wade amul respect si Sénégalais te toujours mu wane ko quoi du question far nag man mi wax ak yow ni bokkuma parti politique du ma politicien <coughs> te duñ ma gaaw a jàpp ci affaire créé parce que du ma politicien du ma bari na tam ñu liggéey ci état bi ay années et des années mosuñu sa des années et des années mosuñu sàcc ñi ngi sant yàlla ba tey bañ jugee seen poste ministère dellu nañ liggéey lañ daan liggéey mais regarde-moi le gouvernement d'Abdoulaye Wade 2000 ba léegi ñu si nekkoon ñi bokk PDS nii ñi ngi taxawaalu rek mais amul ci liggéey ah? Ah? kenn kenn kenn ku ciy liggéey les Farba ay xaw ma Babacar xaw ma naka tout le monde mi ngi taxaw waxu politique politique du métier Abdoulaye Amar kon Sénégal du ñu avancé tant que ñu ngi jël politique def ko métier du ñu dem kanam mukk mukk mukk mukk mukk li ànd wax moo ci nekk dañu brûler bato suñu jarbaat yi ak suñu doom yi dañu brûler bato jëm ñoo fekk si ku nekk di dem jëm ñu sax xool lu ñu avancé ki nekk si kaso bi di wax waxu Serigne Touba amul respect si si kenn Serigne Touba fi mu jaar ba génn Sénégal du sax yoonu politique du yoonu alal du yoonu dara kooku doon uti yàlla. loolu kon loolu du débat bi li affaire politique la dañ la jëñ sàcc nañ wax loo xam ne moom sàcc ko. nañ ko firndeel ne nañ ñu oo ne ñu Karim ba muy liggéey lii la amoon bi mu ñëwee Sénégal daf ñu doon jàppale amoon na alal ji da nga sàcc sàccu ba mais justifié ko mu jeex man daal loolu laa amoon lu ma ciy wax quoi. waaw affaire Ukraine nag. affaire Ukraine nag man jaaxal na ma trop ni ñu koy ni ñu koy soulever Ablaye Wade man maa ngi fàttali ne en 2000 Sénégal la ma fekkoon bi ñu ko falee ki mu njëkk a jëli tëj ko mooy que dëkkoon Thiès gars yi nu chemin de fer bi c'est pas comment il s'appelle encore. Mbaye Diouf. Mbaye Diour si route route la ma fekk du ma ko fàtte jabar ji ak euh, Idrissa seek ñoo def benn meeting xaw ma je sais pas quoi euh, à Thiès dans la même même mois bi ko falee ñu jël ñu ko indi ko ay Diouf lañ njëkk a tëj fii tëj fi ñoo xam ne xamuñu kenn la ñan lañ léegi ñuy wax waxu CREI CREI nañ ko dindi parce que tëj nañ doomam <laughs> mais attends toog ne procès bi du fi am procès bi am na léegi tëj nañ ko nga indi ñu mbiru affaire jaxasee réew mi léegi mais léegi dénk naa ko waa Touba loolu mooy ñoom ñu nekk foofu nañ wax. Serigne Touba dafa bind ay xasaayit Sénégal yi gale yi defe naa ils sont tellement intelligents que ne war nañ mën a liir xasaayit yi muy tijaan ak muy tëg mu muti doon liy doxal réew si la liy jubal nit si la ak lépp ah, non billaahi man mi ah, wax ak yow mi dama koy liir te du ma murit liy doxal réew li jiital réew lépp ñu ngi ci tey su ko moom su ko liiroon dina ruusat nekk ci biir kaso sax di tudd Serigne Touba Alioune Badara Ndour di ko jaajëf bu baax a baax alors euh, mbokk yi nekk ci ligne bi fii euh, dama leen di ñaan parce que xam naa ne ndax gisatuma groupe bi ah sànq am na xam ban manipulation ba gisatuma groupe bi nii alors mais xamoon naa ni rek ànd moo ci teewoon ak Alioune Badara léegi dama leen di ñaan yéen ñoo ñu nekk fa bu fekkee mun ngeen raccrocher ndax parce que su ma jëlee ñëw yéen ngeen coupé te boo yéen gisuma leen. pour mun a jël ñële alors je dama leen di ñaan rek pour mën a jël ñële donc euh, ñoom Mouhamed ñoom Abdou Cissé ñoom Sane fekkee mun nañu mun nañu woote mais yéen mun mun ngeen raccrocher ndax ma mun a reprendre écran bi après mun leen gis quoi sinon gisuma leen actuellement donc yéen a ma mën a euh, yombalal liggéeyal bi ngeen raccroché yéen ñi nekk ci ligne bi actuellement ni ku ci nekk rek mu raccroché ndax mu mën a jël ñeneen ñi donc euh, may demandé Mohamed bu fekkee mi ngi may dégg Sané depuis le Canada Abdou Cissé ak keneen koo xam ne yaa ngi doon woote sànq te nu ma la woon a jël rek c'était des dû à des problèmes techniques xam ngeen rek man ak samay kërëb euh, kërëb voilà donc maa ngi leen di maa maa ngi leen di ñaan ah bu fekkee vous pouvez rappeler ah Mohamed mon ami Mohamed Mohamed le socialiste depuis Washington euh, Vieux Sané depuis Canada Abdou Cissé euh, fii ci euh, Houston Texas ak képp koo xam ne woote woon nga sànq rek te amoon possibilité duggal la ci waxtaan bi alors vous pouvez rappeler alors ñu déglu lii ngeen xam ne moom mooy seen xalaat par rapport ak li nga xam ne moom mooy waxtaanu tey bi Abdou dafa mel ne yaa ngi ci biir ah Cissé allo Abdou allo Abdou yaa ngi ci biir non pourtant il ne m'entend pas Abdou allo Abdou allo Abdou dégguma allo Abdou. allo. waaw 713 waaw kooku sëñ bi na def. sant bu baax. ah man kay maa ngi doon kooku. ñu waa waaw ah Cheikh bismillah aca ah, Cheikh ñu déglu la naka coono yi ñu ngi sant ba alhamdulilah waaw Cheikh man ñu ngi leen di euh, euh, nangu ziar di leen koy delloo mu bëgg a def lu ma la dégg nga wax ci benn waay intervenir euh, biir ne Ablaye daan dem Touba nga ne ko avant mu nekk président loo fa demee comme ni mu fa daan demee man man bi may gën a nekk xale euh, boobu Abdoulaye nekkagul président fin deux mille euh, ci ci taawu Sine Saliou man Touba laa dëkkoon fi ma dëkkoon soriwul woon Sine fa daan nekk lu bari mais boobu Abdoulaye daana fa ñëw li mu fa daan ñëw man jàpp naa sax bu nekk président daawu ko fa ñëw am na benn appartement social boo xam ne chaque fois bu foo daan ñëw fa la daan yendu donc li ci ëpp ajuma la daan ñëw yendu fa julli ajuma dem ñibbi donc bref loolu taxuñ taxuñëw ci ak bu bu ndaw moo gën mais Amath man dama dama dégg benn révélation benn révélation bu su benn journal si def benn rajo Sénégal xaw ma dégg nga ko déet bu fekkee dëgg la muy révélation bu grave parce que waa ji ne démb bi bi euh, ñu joxe verdict bi avant avant suisse bi di joxe verdict bi am na ay journalistes étrangers yu fa nekkoon yoo xam ne yoroon nañ yoroon nañ verdict bi ñoom yoroon nañ papier bi moom nee na bëtam may na ko fi mu toogoon mi ngi dend benn copain boo am journaliste mi ngi mi ngi yor bi nii teg ko ci teg ko ci tànkam mu lii ko mais euh, lim bi exactement mooy du siis bi wax donc ñaar six ans yi ñu tëj Karim Wade ak amande bi mu war a joxe donc waaye man daal dama ko dégg affaire bi jaaxal na ma ne daal lool lu mën a nekk dëgg daal bu fekkee dëgg la daal ma xam ne daal suñ suñ justice bi fit bi faam ak mu ñuy doxee daal man jaaxal na donc xaw loolu dégg nga ko déggoo ko ak ko déggee yow noo ko gis ak xalaat bi ngeen ci am loolu moom dégg déggu ko mm. waaw loo loo loolu loolu dégg naa ko tey am benn dégg naa benn journaliste man maa seetaan vidéo bi mu ngi ci mi ngi ci net bi Sénégal ak xam nga Sénégal benn journaliste woon seen émission boobu ñu naan petit dé si lañ ko invité woon mu wax ko ci mu ne moom bëtam may na ko fi mu toogoon benn nag benn patron journaliste étranger mi ngi yor mu ngi yor papier bi boobu suuf bi li euh, joxe bu verde bi ñu ngi toog di waaw mu ne mu ne mu ne journaliste étranger yoroon nañ verde bi avant suuf amaat amaat daam ah en tout dégg naa benn journaliste journaliste Walfadjri ki nga xamante ne moom moo. allo moom moo moom moo responsable wu affaire affaire affaire juridique ci ci ci ci ci journal moom la ñu invité woon tey suba moom laa dégg ma koy wax man bi ma bi may avant émission bi foofu naan di nga wax ci loolu. mais comme déggu ma ko yëgul ma ne loolu dégguñu ko jërëjëf euh, euh, Cheikh foofu ca Detroit Michigan aha euh, monsieur Sané depuis Canada bonsoir. vieux Sané. vieux Sané Canada bonsoir. Vieux Sané Canada, bonsoir. Euh, Vieux Sané, vous m'entendez, Sané allo Sané Allô Bon, Sané ne m'entend pas. Alors, euh, qui n'est que tu téléphone, mais quand 200, 202, c'est Mohamed, non Euh, je suis devenu le pas dire à Sophie, Euh, Sané, vous m'entendez 514 514 ne m'entend pas. beneen téléphone bi kan la. allo. oui Sané maa ngi lay woo. allo. oui Sané allo Sané. dommage que ça passe pas avec Sané allo Sané. Mouhamed allo Mouhamed Mouhamed yaa ngi may dégg Mouhamed na mantam pa tamit voilà affaire bi jaxasoon na c'est je crois que l'autre groupe n'a pas raccroché complètement tout le monde n'a pas raccroché là-bas moo tax ba tey tey mënu ma leen a gis muy am interférence alors saane euh, dégguma Mouhamed dégguma voilà alors euh, je crois que 713 bi euh, Abdou la woon mais euh, c'était Cheikh depuis Detroit Michigan alors voilà xaaral ma jël la euh, waaw euh, Mouhamed tu m'entends waaw Mouhamed oui allo allo allo oui maa lay dégg allo Allô? Allô, oui, Mohamed, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Mohamed, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, Mohamed, bonsoir. Dommage, Mohamed ne m'entend pas. Allô? Allô, oui, Mohamed, yaa may dégg ah. Aliou na nga def. Allô? Oui, Mohamed, bonsoir Mohamed bonsoir. affaire bi jaxasoo na de. waaw jaxasoo na trop kay Alioune Badara Ndour yaa may dégg ah. bonsoir. yaa may dégg. maa lay dégg bu baax Mohamed maa lay dégg bu baax. je t'entends très bien. bonsoir yaa may dégg. maa lay dégg bu baax Mohamed je t'entends bien. allo. allo. oui. allo waaw yaa may dégg. waaw waaw maa ngi lay ngay waxal de fu mu toll nii. ah xanaa maa ngi fii ça va. Euh, allo Mohamed. oh là là c'est dommage que ñoom ñu ngi may. waaw nekk ci émission bi waaw maa ngi ci émission bi mais xaw ma ndax maa ngi jàll. parce que du may am retour. Euh, allo. ah am retour mais. kan moo nekk ci émission bi du du Amath wala yow la. Euh, c'est moi. c'est <laughs> dafa am interférence bu garaaw premier groupe bi ñëpp raccroché wuñu moo tax mënuma jël deuxième groupe bi alors te mënatuma jot deuxième premier groupe bi ndax gisuma leen pratiquement je les vois plus sur mon écran alors euh, voilà quoi isa Skype bi jaxasoo jaxasoo bu garaaw a garaaw a garaaw euh, je sais pas comment résoudre ce problème il va falloir te maa ngi jéem a couper bañ na couper il faut que maaxala computer euh, bi tam dafa yàgga ah? moo tax it mi ngi commencé abale nànk-nànk mais voilà euh, dommage euh, ma essayé war une dernière fois Alioune Badara Ndour yaa may dégg allo Alioune Badara euh, dégguma donc voilà domage mu ñu ma dégg parce que mbir mi jaxasoo na voilà kon je crois que euh, xaaral ma jaare fa rek euh, lépp daal di deqi toxi àjjana parce que skype bi doy na waar gisatuma premier groupe bi deuxième groupe bi ça pose problème alors euh, voilà dommage dommage dommage dommage domage dommage dommage euh, les aléas de la technique voilà dangay commencé abale euh, jàmbaar la nag dem moo ni wallaay jàmbaar la <laughs> waaw ah, moo ko essayé waat euh, euh, Sané tu m'entends Sané allo bonsoir Sané Sané bonsoir allo allo Sané bonsoir allo. bonsoir. waaw oui. nga dara. maa ngi lay dégg kay maa ngi lay dégg Sané allo Sané jeex na kon boog loolu mooy euh, na voilà kon dañ euh, ko fi daal di yemale rek xam ni euh, euh, jéem nañu mais sottiwul ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp seen ànd ak comme ñaanal leen guddi jàmm di ko sàkku ci yéen on se retrouve demain incha allah ak soxna Anna pour seen émission sociale yi bu ñëwee tey xam naa tey nag malheureusement les aléas du technique moo tax on voulait bu diir vraiment. Euh, lii nga xam ne moom mooy loolu li ñu waxtaanee suba thème bu am solo bu doy waar mais malheureusement affaire bi jaxasoo na partout kon ñu ngi leen di ñaanal guddi jàmm di ko sàkku ci yéen seen xarit seen doomu day Amath Diouf depuis Houston Texas good night bye bye. su ngeen bëggee siiwal seeni yëgle moo xam fu ngeen mën a toll jokkoo leen ak waa Seneweb